love. asalaamaaleykum di nuyu ak nemmeeku mbokk téléspectateur wu la chaîne leader di seen TV di leen sargal di leen dalal ak jàmm ci suba teel suba su ne ñu fas yéene leen a gunge ci seen fajar waaye nag duñ ci yem dañ leen di informer waale daa di rek gën a waxtaan ak yéen jox leen suñu ay astuce du jour suba su ne nag dañ koy tàmbale ak suñu météo du jour ndaxte dafay baax ñu daal di xam rek jaww ji li nga xamante ni moom la ñuy jox ci bésu tey ma fàttali nag tey la àllarba 17 juin 2020 ñu daal di koy tàmbale rek ak. waxtu bi naaj bi fénk ak waxtu bu muy suur ñu gis ni ni naaj bi fénk na euh, ci waxtu 6 heures à 41 minutes te it euh, dina suur euh, ci waxtu 19 heures 41 une minute itam ñu noppee ci loolu rek dañuy daal di dem en profondeur déglu jaww ji lim ñuy jox ci bëccëki tey ñu gis ne ni 28 euh, degré la ñuy amal euh, ci bëccëki tey ci Ndakaaru ñu dem benn dëkk ñaari gaar di Thiès ñu gis 25 degré 26 degré fi nga xamante ni moom mooy Diourbel ak Kaffrine ñu dee descendi ba tey rek dans la zone centre euh, Kaolack 38 degré lañ fi amal 27 degré fi nga xamante ni moom mooy Fatick ñu dem dans la zone sud sud nag ñu daal di ci tàmmu Ziguinchor ñu tàmbale ko ci moom 28 degré lañ fee amal 35 degré euh, fii ci Sédhiou 37 degré fii nga xamante ni moom mooy Kolda Kédougou 36 degré Tambacounda nag dañ fee amal 40 euh, degré euh, Saint-Louis 46 degré mu nekk degré bu gën a élevé ci bëccëg tey ci région 14 régions Sénégal yi Louga 42 degré 44 degré fi nga xamante ni mooy Matam spécialité au bésum tey nag mooy que asamaan si dina fera beau donc nag ci colin bi habillez-vous léger en cette journée ñu daal di dem guddi gi xool ndax euh, dina gën a féex euh, ci euh, bésum tey dina gën a féex ci Ndakaaru ak 25 degré 28 degré fi nga xamante ne mooy benn dëkk ñaari gaar di Thiès Diourbel 32 degré 28 Fatick Kaolack 29 degré Kaffrine ñu gis fa 33 degré ci guddi tey 27 degré Ziguinchor 28 Sédhiou Kolda 31 degré 32 degré fi nga xamante ni moom mooy Kédougou ba tey ñu des dans la zone sud ñu dem Tambacounda 35 degré lañ fay amal 38 degré fi nga xamante ni moom mooy Matam Louga 35 degré 36 degré euh, fi nga xamante ni moom mooy Saint-Louis bu ñu noppee nag suñu ay prévisions météo dañuy daal di dem rek ci suñu géej gu fer ak géej gu fees ni ñu koy faral di defee rek ñu tàmbale ko ak suñuy marée haute ñu gis na ni eh, ci marée haute tey nag dañu ci am ñaar ba ci njëkk nag wees na ci fajar ci waxtu 6h31 minutes ba ci topp nañ ko xaar 18h37 minutes ci bésu tey suñu géej gu fer nag ñu daal di dem ci moom ñaarit lañ ci amal eh, ci bésu tey ba ci njëkk minuit 7 minutes lañ ko amaloon ci guddi gi waaye ba ci topp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci diggu bëccëg bi dañ koy amal 12h29 euh, minutes lii nag charmant téléspectateur moo nekkoon suñu ay prévision météo du jour amoon contenté dégtal leen ko laata rek may dalal samay naataango ngir ñu yebbi leen liñ leen indi dama leen di bàyyi ak seen horoscope du jour Bonjour et bienvenue. Voici votre horoscope de ce mercredi juin Bélier, vous devez faire appel à votre patience. Les astres en Capricorne irritent. Les priorités professionnelles incitent à faire des choix. Mercure en Cancer vous rend impatient. Dans des discussions avec votre partenaire, vous êtes irritable. Des accrochages arrivent des suites d'un quiproquo. Les sentiments sont mis en berne Suite à ces malentendus, votre relation peut devenir difficile. Les défauts de votre partenaire sortent, ils peuvent entraver le bon déroulement de votre histoire. Taureau, avec la lune dans votre signe, vous cherchez à gagner du temps pour mieux maîtriser vos actions afin d'être rassuré. Comment gérer vos contradictions Vous êtes plutôt du genre à vous fixer un cap sans jamais dévier de votre trajectoire. Mais Vénus en Gémeaux se moquera complètement de solide. Gémeaux. Avec la lune en taureau conjointe Uranus, vous n'approfondissez pas vos relations. Vous avez peur de perdre votre liberté. Vos multiples activités ne vous laissent pas une minute. Aujourd'hui, le temps vous manque. Vous ne pouvez pas profiter de votre entourage autant que vous le voulez. Cancer. La conjonction lune-Uranus bien aspecté à votre signe vous permettra de dénouer une situation complexe ou compliquée. Même placée dans votre maison, la planète de l'amour ne vous laissera pas complètement démunie sur le plan affectif. Il ne sera pas pour autant question de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais de faire place à plus de raisons dans votre vie sentimentale. Lion, la Lune et Uranus en taureau vous placent sur la défensive. Vous êtes irritable, des clashs peuvent a des d'accrochage avec l'être aimé, face à la contrariété, votre tempérament s'emballe. Vos amours font les frais de ces débordements explosifs, mais vos sentiments en ressortent plus forts. Vierge, directe et instinctive, la conjonction Lune-Uranus accentuera votre franc-parler et votre côté parfois radical. D'un caractère entier avec vous, ce sera tout ou rien. Excessif, vous ne ferez pas dans la demi-mesure, ce qui pourrait vous conduire à quelques débordements. Si vous ne parvenez pas à vous maîtriser, vous ne verrez pas forcément les choses telles qu'elles aujourd'hui à faire des rencontres fortuites. Aujourd'hui, les échanges sont nombreux. Les contacts se multiplient vous tirez le meilleur de vos relations amoureuses. Cependant, vous pouvez vous poser des questions concernant votre évolution côté cœur. Vous faites le ménage, les relations qui ne vous apportent rien, vous n'en voulez plus. Scorpion, avec la lune opposée à votre signe, vous saurez intuitivement à qui vous aurez affaire et comment appréhender la situation. Avec Vénus en gémeaux, pas question de dresser des barrières entre vous et l'amour et encore moins romantisme, des plus charmants vous ouvriez plus facilement votre cœur à l'autre. Sagittaire, la journée reste favorable à des réflexions. Si vous avez choisi de méditer, faites-le. Vous pouvez être interrompu par des visites Mars en poisson, mais des doutes dans vos amours, les sentiments ne sont pas ceux d'avant. Un déclin arrive et la passion se peu à peu. Laissez faire la vie, proposez à votre partenaire un week-end en amoureux. Les astres en gémeaux vous rendent à l'agréable. Capricorne, la lune coulée à Uranus vous demandera de vous adapter quasi instantanément alors que vous aurez besoin du temps. Quatre planètes en signe de terre renforceront votre ambition professionnelle, mais apprend celle de vos amours. Vous n'y penserez tout simplement pas car vous aurez tellement de choses à gérer, ce qui vous ferait plaisir serait d'avoir quelqu'un à vos côtés qui s'occupera de vous sans que vous ayez besoin de quémander quelques miettes n'en faites pas trop non plus. Rien n'est gagné d'avance, votre vie amoureuse demande encore beaucoup d'efforts de part et d'autre. Votre assurance n'est pas justifiée. Cher natif, durant cette journée, les planètes pourraient décider de vous tester. Dans votre intérêt, montrez-vous tel que vous êtes. Poisson sous le quinconque Soleil Pluton, vous aurez la nécessité d'affecter un bon réglage pour connecter vos énergies entre elles. vos amours, vous les voudrez peinards et qu'ils ne perturbent pas votre quotidien sous l'action conjuguée de Mercure et Mars en signe d'eau. Vous serez passif avec une tendance à vous laisser glisser au fil de l'eau. Autant dire qu'avec pareil emballement, vous remarquerez à peine les efforts de votre partenaire pour vous sortir de votre bulle. Et c'était tout pour votre horoscope de ce mercredi. up. di leen jaajëfal bu baax a baax xamaat contenté rek euh, euh, euh, xëy ak yéen di leen gunge rek suba su ne ci noonu nag laay daaji rek dalal samay naataango ñoom ñaar ñëpp nag laa gi gis te namm leen waaye nag damay daa ji tàmbale ci sañse bu rëy gi tey moom ay dara karaara dag ñoo xëyee grand boubou waaw macha allah. <laughs> Ah, Asma maa ngi lay nuyu di nuyu rokkay di nuyu spectateur yu ñuy seetaan waa gis nga tey de dama xëy rek xam nga man fu ma neex laay génn. <laughs> waa gis nga loolu macha allah rafet na trop <laughs> merci beaucoup. roxee noo def sa verre baax na yow it. je vais bien merci dañ lay jàppale rek di la wétali nanaa ni nga def baax na aussi téléspectateurs yi ñu seetaan di leen ziar bu baax a baax j' espère que seen suba teel neex na ni ngeen yeewoo neex na jàkkaarloog seen émission mu fas yéene leen indil nag ay surprise yu bëree bëri. macha allah am na solo kan kon kay eh, di daje bi eh, mat na roxee boo leen ko gisee da ngeen di xam ne dafay dikk ak yéen soit yi bon savoir savoir vivre eh, savoir être wala bokk nag ay astuces yu am solo ngir rek yokkal leen société tamit dañuy ñëw waxtaanee waat rek li nga xamante ni moom mooy lii société ak askanu Sénégal mel ak li fi xew sa saa su ne kon nag ci noonu nag laay daal di dem rek ci suñu éphéméride du jour alors ma tàmbale ko tey di fàttali nu nous sommes le 17 juin 2020 ñu dellu 1998 fii ci Ndakaaru euh, mu nekkoon président Abdou Diouf euh, moom moo doon joxe prix Houphouët-Boigny euh, pour la recherche de la paix à Fidel Ramos président de la République des Philippines fekkee ngeen ko mbaa ngeen nekkoon ay xale yu fekkee woon nañ koo mais ay tout tànk ay tout dégg dégg leen ci amoon mm. dégg dégg leen ci amoon waaye président man salaamee koy soog a yëg <laughs> tout à président Abdou Diouf moom lu mu def rek day des ci nit ñi parce que nekkoon na président boo xamante ne macha allah defoon na fi liggéey bu am solo tout à mu am solo gis ngeen ni Sénégal saa su ne bu ñu waxee mbirum jàmm rek ñu ñooy yor mm. drapeau bi di ko jottali nit ñi mm-hmm. ah, kon dafay mat ñu koy bàyyi xel bu baax a baax ngir rek euh, transmettre lool ndax suñu ay maam dañ koo liggéey jottali ñu ko kon nag wareef bi ci ñun la des ñu daal di ko jottali eh, suñu ay njaboot ñu desandi ba tey rek le 17 juin ñu dem le 17 juin 1994 mu nekkoon inauguration euh, du musée de la femme Henriette Bathily sur l'île de Gorée dans une maison construite en 1777 euh, par Victoria Albis une riche signare waaw Gorée de moom ku ko dégg xam ne ne suñu histoire Sénégal yëpp histoire Afrique sax laay wax yëpp ngi Gorée loo bëgg xam rek boo demee Gorée da nga ko fay fekk mhm. fekk fa tamit ñu waaw macha allah da lii mhm. baa ngi nii te xam ngeen bu ñu déggee Siñaar dañuy dégg taarum ah, Sénégal ak classe ak charme de la femme sénégalaise yóbbu na ma Ndar sax nag waaw gis nga loolu mhm. Gorée ak Ndar dañoo xaw jege yoo bu ñu déggee Siñaar dañuy dégg dañ suñu xel day dem ci métissage ndaxte Afrique dafa bëri ay métis comme ni nga ko xamee ndax ndaxte gis nañ nekk ne lépp fii la dooree donc euh, fu ñu am nañ fa ay maam moo tax ñun ñëpp benn lañ mais comme li nga wax nii rek xale yi tout tànk yi bu ñu demee Gorée nana il faut que ñu ne peut être juddooguñu woon am nañu ci bëri ñoo xamante ne aussi dégg lañ ci am il faut que ñuy dem Gorée parce fait tout à fait ndaxte dañuy dem Gorée ko ci nekk rek am nga euh, sop ak kumpa Gorée ngir rek euh, dem dundu li nga xamante ne ak fàttali li sa maam yi dundu c'est bien ñu xam ne tout à fait am na yeneen endroit yoo xam ne mun nga dem visiter ko gën a ressourcé wu bu baax a baax. dafa lay yokk jom tax nga xam ki nga doon te loolu nag ku nekk ko bu xamee li mu doon ki mu doon rek. Mhm. Eh, defar boppam dafay daal di yomb ci moom ñu desandi ba tey le 17 juin 2015 la ñuy desandi eh, dañuy amal lancement officiel à Dakar de la télévision numérique terrestre mooy TNT au Sénégal par le président Macky Sall yéen a ngi fàttaliku. waaw bii moom ñu ngi koy ngeen ko bu baax a baax waaw bii moom fàttaliku nañ ko xale yi nañ ko xale yi dund nañ ñëpp xam nañ ko jamono ji mm-hmm. actuellement ndaxte instant bi nii ak euh, ci ère bi ñu nekk. Mm-hmm. c'est vrai que ni mu ni mu ñëwee noonu soxal na askan wi bu baax. Euh, tout à fait mu nekkoon dimbalu njaboot yu bëree bëree ba tax ne comme ni nga koy wax xale yëg ne ci seen bopp. Mm-hmm. ñi amuloon prix yu beneen euh, opérateur ah audiovisuel bi ñoom dañuy demoon ci bii ah, mu nekkoon suñu yëfi bopp man sa loolu laaj jàng dama ci jàng ni concurrence dafa baax. tout à fait tey jii nii ba mu ñëwee la yeneen kii wàññi seen euh, prix bu baax a baax. Mm-hmm. donc am na solo daal. tout à fait lii nag moo nekkoon suñu éphéméride du jour laata rek ma leen di bàyyi ngeen yebbil téléspectateurs yi li ngeen lañ di indil dañuy daal di dem rek ci suñu clip du jour ñu daal di dem euh, Ceddo euh, xam ngeen xam ngeen groupe Ceddo. waaw waaw ñoom euh, nu mu tudd sax am di. sañ-sañ sañ-sañ sañ-sañ mooy titre clip bi. xam nga ah, ko si bu baax ñu dundaat ko. ñu dundaat ko ñu dundalaat gars yi seen ay jamono. asma yóbbu ñu dañoo dañuy doog a yeewu yóbbu ñu ñu xool. ayca <laughs> nañuy yee yaram yi bu ko defee rek noppi fireeku ñu mën a déglu li nga xamante ne moom lañ ñu indil ay ca sa jàmm. hey sa àdduna say seet sa jàmm. sama waay nga wax naa la dëgg sama waay nga wax naa la dëgg sama waay nga man jaay tii ma wuy la ñu ne dara ci sa su ko dul yëbal nir wu ku ñuy ñambaas ndax dégg naa tey garabam man de ba ma la xamee si laay soog a wax kooku problème mu régler problème ba dootoo amati problème ma jaay joom no problème. ndax yow problème lu mu di di di di su ñëwee wax ko mu ne la amul problème ma jaay problème lu mu di di di di su ñëwee wax ko mu ne la it no problème dangay am sa problème mu régler problème ba dootoo yow alaaji Mali jub li ñu wuy sa baay Adja Ñanga Njaay li ñu wuy sa yaay yaay bu roja bintu juub ma bu juri juub ku la way wandeelu ñambaas yàqu dara ci seen sukkandul yëpp ngir wokku ñuy ñambaas ndax soxla mën la nga moo ma tëgal muy bëri daan ngay ma njaay juub yaay sama Pape Assane moom pareegul ci son bi ba tey moom mi ngi ci euh, sekk ndaanaan noo def. Mhm. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim. Ah, waaw yaa ngi waxtu du yàlla. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ah àdduna. ah waaw waaw. Mhm. àdduna. waaw doomi aadama. Mhm. mën ngaa def lu raw yi fi doomi aadama. dëgg la est-ce que mën naa ne. mënut nekk mën nga fee doon kenn ba doo def yi fi doomi aadama. lu ma dugg génn ci. ah mais mais suñu président sax nag Youssou Ndour wayal na ko. ne ah. mën na fay def loo xamante ni doomi aadama defu ko. alors ah, dëgg la euh, mais. Euh, mais gusto. mais ceddo bi la yëngal sax yëngal na ku ne. dafa neex. mais loo ñu mën a wax tuuti si ceddo loo ñu mën a wax tuuti si ceddo. ah c'est un groupe euh, mythique des HLM. tout à fait. Euh, euh, Laye Bamba Seck xam moom daf ñuy seetaan. Mm-hmm. il nous rate pas moom ak euh, Hamdel. ñu di ko nuyu leen di nuyu bu baax. man nag dama def erreur ñax naa de. ah man ki dama ko dafa fecc ba kontaan non moom lépp ma naturel yoon am ñaw ci waa Basan hmm? est mën nga bàyyi couleur bi ma sol rek nga sol ko tamit wala dañoo déggoo ah, man ak yow. xale waxtaan bi la xam nga booy wax ak ay nit. Mm-hmm. guddi gi nga woo nanaa wax ak moom. tourné wax ak Roqe wax ak Xasuma. Mhm. wax ak Aziz Aziz xam nga ban heure la ñuy wax téléphone tey. 6 mm. heures du matin. dëgg la moom doo nelaw mën a. waaw donc donc donc foog ñu. c'est normal léegi nag loolu ay ond la da ngeen di yëgante. waaw léegi lay goût yeeg couleur yi daje. ndeysaan dëgg la. comme ça. xolol xoolal na na elle est avec nous. léegi nag dama lay yóbbu euh, ci Astar. Mm. Euh, euh, maquillage. ñu daal di la puudaraat tuuti xam nga kilifa nag man damay bëgg buy génn rek ñëpp yaakaar nga ni nii jar na puudar lii xas ma lii lii lii xas ma naturel lépp mën naa la wax benn affaire ah. euh, ñu puudar ko defaraat mu ñëw toog mais da nga bëri ay fans nag bëri ay soppe ñi la bëgg ak a ñëw bëri <laughs> te drapeau Sénégal da nga koo taxawal fii ci subateel gi ci mim réew yàlla yal na yàlla defal la jàmm. yàlla defal la ko. amiin defal la ko. allahumma amiin naa la wax benn affaire. Ah. dafa am benn kilifa bu mag. boo xamante ni dañuy waxtaan. mën naa ko wax sax maa ngi koy nuyu su suñu papa bi kër Diagne bu CNRA papa maa ngi lay nuyu bu baax. parce que maak moom nag ñoo bokk waasur ngoone jeng borom ñey mbaaw hmm. sunu maam yi ñoo la waa kër euh, ama kumba ak laddaar ak ama neex ak ña sa des loolu moo la ña askat fii ba jandeer ba tracé ou décidé dégg naa la wax bi waaw ñuy waxtaan mu ne xam nga <clears throat> koo xamante ni def na ci métier bi quarante ans jëm kaw ba cinquante sax ngeen di waxtaan kilifa yi di waxtaan ñoom dafa baax ci coow yi ñu fi doon dégg ak CNRA si yooyu yëpp xam nga day jàll parce que kilifa yi bu ñu waxtaan dañuy juboo tout à fait donc seen TV kenn du ko laal kenn du laal beneen télé kenn du laal beneen rajo kenn du journal Sénégal moom kenn du fi laal presse Cheikh Yérim mii cooway bëri rek incha allahu rabbi danga kaa bàyyi léegi mhm, donc yal yàlla saxal jàmm Sénégal euh, ñu émission bi nag may naa ko man personnellement mm. kilifa yi ñuy setaan Ah, tout à fait. en passant lu ma neex ci moom wax na fa wax ba tey Babacar Diagne lan la fa wax. lan la wax te Babacar dugg na ci actualité mu xanaa. non fu mu dem yóbbu actualité ah, bi. dañuy waxtaan ak moom. Mm. léegi li coow li bëri ñu ne ko papa loo xalaat ci lii wante nag papa fii def li nga def tegoo ko ci yoon de mu ne déedéet mu ne déedéet demeewul de nii la demee leeral loolooy waxtaan léegi ñun dañuy jàng si ñoom moom ak ñeneen ak ñeneen kilifa yi président Macky Sall léeg-léeg sax ñu bëgg a wax ak moom mm-hmm. mais mais mais léeg mu jafe mais léeg-léeg ñu bëgg a wax ak moom mais papa li nee ne da ngay am autorisation euh, xam yoonu Mermoz kon kay utal autorisation te xam yoonu maire mooy rek di nga jot président. xam nga be be président benn toog naa këram te yëgu ko. <laughs> fa laa yem. en tout cas Pape Alé mi nga xamante boobu laay nuyu je rappelle que émission face à Pape Alé euh, tey mercredi. Mhm. Euh, à partir de 21 de dawo fi nga xamante ne mooy fii 22h nag dañu xam naa dañoo toxal waxtu bi tuuti rek euh, ngir rek kilifa yi gën a am jot mën ko seetaan. na ko ñëpp xaar merci a koy xaar sax. Mm. waaw kay nag li ñëpp di tey dina neex lool. tey tey dañuy waxtaanee je pense bu ma juumul ay contraception ñoom seen te xam nga xale yi xale jigéen ñi xale góor yooyu lañu ñu bëgg. bu neex a nar a gis-gis contraception de ah? waaw. ah am nañu d'accord am nañu d'accord su Safia changé wul entre temps je pense que moom la annoncé woon dina neex lool. non père tey lim ci nar a jàngat dina <laughs> rëy. loolu nar a rek dañ koy xaar dafay eh dafa neex yow. Pa Assane sama baat dalaa neex de ah. wallaay macha allah xam nga ni ah émission bi ba dëgg la ñu bëri dañ koy seetaan ndax Safia mais ñu bëree bëri dañ koy seetaan ndax. père père anti stress la. anti stress nga toog la jàkkaarloo père mu def nii. non jot na lu ne non père maam la ci biir kër ñu jël ko teg ko ci kaw euh, gis nga gis nga. wuy ah, ko eh, a ngi ah, ah, nii a ngi a a ne lii mën na nag mooy def lu ne. la nag. da ko fee xaar mu fekk ko fi ndeysaan donc dafa gore. gore dafa bëgg bugaan loo wax mu ne la bugaan donc lii ko dafa dafa dafa jo wuyul peer. ak danaa jëla wàcc bi <laughs> jëla wàcc bi. Ah. berline bu baax lañ ko jox de. macha ah, allah waaw non da ko président di ndàndal ah, teraanga. dëgg la wuyu peer yow <laughs> dafa kase balaa bi sax nag. ah <laughs> sama umpaañ bi yaboo def attention ndax père temps yi am na ñu bari nañ ko a teg bët nag. père de dootul jëlaat ah, suñu père la nag. ah suñu per la suñu maam la xam nga lii ma doon wax mooy que euh, per dafa mel ni sa maam ci biir kër. ni nga koy mhm. kekkantoo di ko tooñ di ko cokkaas ñu indil ñu ko nag ci biir euh, euh, Sen TV ci télé bi nañ xool final bi. <laughs> moom dafa ah <laughs> finalu père a ngi ne gaari père gaari père mën a dawal. dafa mën a dawal de. wuy ko génn bi. wàcc na xoolal fay na la fàcc fay na naan day bëri tiitar. Ah, waaw waaw waaw jëlal ñëwaat bi eh, li njaabu paa njaabu paa la yéen ngeen père ni muy doxee ni démarche bi. daan naan day bëri tiitar gis ngeen li ngeen di def père nii bu leen jàppee tey si di ngeen xam ni lépp. incha en tout cas je rappelle encore une fois face à Pape Alé à partir de 22h la gis-gis 22h euh, et demi jëm suuf. Mhm. Euh, bu ko defee rek ñu gën ko bàyyi xel bu baax a baax en tout cas euh, ci noonu nag ñun dañuy desandi ci suba teel te rek euh, lii nag ñambaas la yàqul sër. da koy gën a am na ku ma gis mu naan Fassane tu danses bien. Fassane dañ sa fecc li non man découvrir naa benn facette boo xam ne xaw ma ko ci woon xamoon ni nga mënee fecc pàkkar ñi nga fi pàkkar ñu yu baax. pàkkar ñi tamit na naa dégg noonu la de pàkkar. papa maman c'est normal moi de produit a Youssou Ndour head office. Ah. Euh, responsable de communication c'est normal parfois on se laisse oh, aller. mais c'est en coulisse c'est en coulisse sauf que nag MD. <laughs> MD dafa def yëfi yëfi bandi réalisateur ah. waaw kay ci naka noonu nag li ñu daal di dem actualité ñu dalal Pape Assane Seck. luy limbe réew mi ñu tàmbale ko ak euh, scandale bi am ci diggante Cheikh Yérim Seck ak euh, le doyen des juges en ce jour. waaw tey tey tey jii la <clears throat> léegi nag les choses sérieuses. Mhm. mandat dépôt. waaw asma. ah. ba xam ngeen ni mbiru Cheikh Yérim yi yàlla na ci yàlla musal muccal ko ci sàmm ko génne ko ci ba xam ngeen ni bu demee ni ko gaa yi nar a tëralee nii jàpp tëj bu demee nii bu yóbbu moom ngeen xam ni <clears throat> ñu ak suñuy morom moom suñuy kàdd dañu koy xoolaat. Mhm. bu yóbbu Sénégal yëpp bàyyi si xel fi ne nii moom. li ñu bëgg a def Cheikh bu buñ ko nangoo bu yóbboo ngeen xam ñun ñëpp man ak sama morom man muut laay def mu leer nañ. kon de kay liggéey métier journaliste moom la ñuy éliminer rek. munoo fi toogal di waxal askan bi. ñu jël la tëj ràpp askan bi toog di la xool. il faut ñu wax suñu kilifa yi ñu def benn attention Cheikh <clears throat> gis na procureur démb ñu jël ko ne tey dafa war a gis le doyen des juges waaw bu ko gisee nag. ñenn ñi dañu njot ni li boo moytuwul dañ koy jàllale mu dem fële. Euh, mandat de dépôt ñu jël tëj la question mooy waa léegi Sénégal ndax dafay dellu gannaaw wala Sénégal dafa taxaw walla Sénégal dafa bëgg a dem kanam parce que demagul kanam ndax dafa bëgg a dem xëy na bëgg na ci kàddu yi bëgg na ko wax ji bare na bëgg na ko ci jëf bi nag mooy jafe-jafe bi fii Sénégal tollu tey xas ma yàlla. tout ak Rokhaya. mbiru Cheikh Yérim mi ma répété ni lii nii ñu ko téewee nii bu jàllee bu yeboo képp kuy waxkat ci réew mi nga xam ni tootoo wax. Mhm. man moom bu yeboo ma man ak sama moroom ñun ñëpp bàyyi àll ak ñun ñëpp yeboo ñu xam dañuy noppi heureusement heureusement SYNPICS CDEPS ñi nga xamante ni ñooy CORED ak ñëpp lépp luy organisation sociale <clears throat> organisation bu concerné qui au trait au Sénégal ñëpp jóg nañu nee nañ du si daal. parce que tegul fenn ci yoon. léeg-léeg nga dégg nag yenn intellectuels yi yu mag nag ay boroom xam-xam yu mag ñu ne mais attention est-ce que Yérim juumul dégg naa kii di yaaxam Mbaye di wax ne lu ni mel daloon na ko ñu woon ko dafa juumoon. amaana peut-être Yakham grand maa ngi lay jaar bu baax amaana bu fekkoon dafa nekk ci beneen boor dina tenir beneen discours. amaana. parce que tey euh, muy suñu kilifa bi yaa xam di ma jambal ak ñeneen ak ñeneen ñu si bëri dund nañ lu ni mel ci jamonoy Abdoulaye waat ci wàllu presse. je me rappelle Thierno Talla en deux mille mille deux mille deux mille oui deux mille bi ñu koy téye ci wàllu bi Abdoulaye Wade président bi waxee ni bu kenn waxati ci Casamance parce que boobu ñu ngi doon lijjanti processus de paix bi Thierno def ci benn dossier ñu woo ko téye ko mais wax rek ne il faut kilifa yi comprendre ne que le journaliste qui parle. su fekkee dafa wax loo xamante ne dañu njort ni amul. ñaara am dañuy démentir tey jii nii baaxoon na bi yërim ne 4 milliards lañu fa lañu lañu lañu compté foofu gendarmerie mën na def communiqué ne amul. day def communiqué rek ne non non non non ci lii waa ji wax amul fenn su boobaa yërim dina ne sii am na parce que j'ai les preuves que. tout boobaa dina ko génne. Mhm. bu dee am na ko. bu boobaa bu ko amul it gendarmerie wane ni moom itam li waa wax amut. loolu mooy dëgg bi. wante kaay wax ñu fan nga jëlee lii. te yéen moment bi ñu leen di wax bi ngeen di wax kaay wax ñu fan nga jëlee lii lijjantiwu leen li leen waa ji wax ndax am na wala amul ci ci ban anam. tey jii nii la question moo doon ce n'est pas Cheikh Yérim le procureur woo seex Yérim ne lii na la demee c'est plutôt le procureur daal di ubbi enquête ne mbiru 4 milliards yooyu leeral leen ko dama bëgg mu leer. nan la demee daal ne section de recherche yéen a demoon xooli mbir mi affaire bi nan la tëddee daal di ne yirim kaay wax ñu nan la tëddee. en mhm. tant que témoin. loolu moo gënoon yenu maanaa waaye jàpp tëj bu subaa keneen beneen journaliste bu naree wax am xel ñaar jàpp tëj après xam lan la ñuy tëj du question dañuy tëj liberté d' expression de wala liberté de presse. on tue l'opinion au Sénégal. Mm -hmm. Et on tue l'opinion au Sénégal par cette façon la la dictature nag dafay toog nag am doole na mhm. après bu boobaa day compliqué. segam mhm. nit ñaa ngi wax seen xalaat di dénoncer di yuuxu gaa ñi di def leen neex tey continuer di ko def. Mhm. massa bu ñëpp noppee. mënta ne. surtout dafa am solo li ngay wax ni Papa Sane parce que am na ci askanu Sénégal ñuy laam-laame naan euh, dictature pacifique moo fi am euh, lii nii buñ ko defee tamit dafay mel ni nag dañuy jox dëgg euh, askan gi mm-hmm. mais tamit dañ ko wax dee sax mais man man je trouve que nii moo fi am mun mënuñu Karim Xumxa ñu ñu tëj ko ndax lan ubbi leen jàkk ji <laughs> euh, Guy Marius récemment lañ ko ubbi tey jii ni waaw euh, tey jii ni euh, Cheikh Yérim moo moom finalement dafay mel ni loolu moo am dictature lañ nekk te man je pense que ni wax dëgg neex yàlla kenn du ko sax seetaan mënuñu mënuñu nekk ci pays boo xam ne ne bu saay bu journaliste waxee rek ñu ne ko ràpp ci kaso bi c'est impossible ci Afrique rek ngay gis loolu noon te doole bi journaliste am il faut ñu xam ne ñoom amuñu ko tout pouvoir bi ñoom la quand même quoi qu'on puisse dire. il hmm? faut tamit benn moment ñu ñu gouvernement bi loolu ñu ciy bàyyi xel. Hmm. donc dañ ñoom bu ñu bëggee nag véhiculer yenn messages yi. Hmm. ils ont besoin de la presse. alors pourquoi man damay naan euh, ci sama xam-xam bu gàtt Papa Assane. ku tiit mooy jéem a tënk nit ki. est-ce que ñoom dañoo tiit est-ce que kon nag. c'est avéré sa source est fiable ba tax ne dañuy bëgg a xam source am euh, coûte que coûte ngir mën ko euh, noppiloo wala wa ilaa. asma bu journaliste waxul kan mooy wax. Ah. journaliste d'investigation surtout ah. voilà askan bi dina waxal boppam. Ah, mais comme ni ngeen wax dictature moom moo fi am même ñu wax ko ñu bañ ko parfois dañ koy sentir ci dëkk bi parce que comme li ngeen wax liberté d'expression moom moo fi des ku wax rek ñu daal di lay jàpp daal lay tëj ba nit dañuy ragal a wax gis nañ ko fi après élection. résultat yi bu génnee char de combat yëppay <laughs> vaccination bi dañuy wàcc donc je pense que yenn ni sa conscience sax moom moo la ko war a may mais tamit euh, ku wax daal mhm. tegal ay preuve te li mu wax ni je pense am na fu mu ko teg sinon du ko révéler kam dama la ne muy Cheikh Yérim di bàyyi Alé di Babacar John di Moustapha Diop bu waral far ji di Pape Djibril Fall ak keneen ak keneen ak keneen di journaliste yu mag yëpp ba ci Serigne Saliou Gueye bi fi toogoon dem ba ci Birahim Touré bi ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ci kër gi Sénégal moo am ay nit yu yàlla baaxal ci wàllu média yàlla def barke si ñoom. Mhm. neex lool la nangu lool la. ñooñu yàlla baaxal leen ci kàttanam ba ñuy gis dëgg di ko wax. aw nga ne dëgg boobu nga xamante ni moo la faloon en 2012 non en 2020 dëgg boobu du exister. Mhm. loolu moo tegu loolu moo moo moo moo te te te gis nga ñi nekk ak président Macky Macky Sall dañuy wax sunu président bi ku ko bëgg a jàppale bëgg ko dimbali. Mhm. ñaar fi nekk benn ngay jëf dëgg. ñaareel ba nga koy wax dëgg. moom itam muy nangu dëgg di jëf dëgg. parce que àdduna bi tollootu gis nga jamonoy Mussolini Winston Churchill ñooñu nga xamante ni dañ doon def te daawuñu def lu neex dañ doon def seeni intérêt dëkk. Mhm. wante di jëmale safaan peut-être ci ñeneen malgré loolu ñooñu jóge nañ fi. te àpp dafay dafay am président Macky Sall moo fi toog abadan ilaa moom ak ñeneen ñi te lu lu ñu fi mënti def tey. lu mhm. luñ ko valider valider bu buñ fi jógee ñu dindi man de je pense que le troisième mandat bi pour juste pour euh, euh, euh, laal foofu noonu je pense que dina dina mujjee nekk xam nga li tax parce que Sonko keroog maa ngi koy seetaan mu ne moom bés bu faloo ñoom ñëpp dinañ répondre man je pense que ñi nekk ak Macky Sall bu dee nekk ci ñoom du ñëpp am na ñoo xam ne nekkuñu ci yoon du ñu yàkkamti président jóge fi bu président bëggoon troisième mandat sax ñoom ci seen jëmmu bopp ñoom ñooy pousser président pour mu laajte waat réew mi parce que xam nañ ne ku ci ku ci bu ci président wàccee rek boo amaana ñoom ñëpp dinañ dugg ci kaso bi bi ñu ci ak ñi ma ko sañ a wax du ñëpp aussi. mais aussi à un moment donné il faut qu'on arrête président Macky Sall bu man j'ai tendance présent à xoolaat ces vidéos 2012 ces les politiciens euh. doivent arrêter de bercer la population sénégalaise avec du miel est arrivé au pouvoir Pape ñu fàtte. Mm. Euh, damay naan euh, jiite réew gor a ko moom. Mm. te gor ca kàddu ga lañ koy ràññee. Euh, kon nag bu toogee ne lépp dina leer président Macky Sall 2012 daf ñu doon fàttali ne lépp dina leer bu ma yégee ñi ñëpp képp ku nekk ci yoon boo xamante ni dëng na di foowee ak pasar pasare xaalisu askan bi man dinaa la feeñal mais on a eu un espoir président Macky bu ñu fàttali ko 2012 bu ñu koy fal espoir la woon amatuñu pexe gisatuñoon woon kenn. ñu am espoir on la jeunesse moo tax mooy espoir bi kii rek a fi ne kaay ñu jël ko mu walluñu waaye nag bu ñu bu ñu lor bay lor presse mi nga xamante ni 2012 ma fàttaliwaat ko moom moo ko xettali parce que maa ngi doon seetaan benn interview am ak Pape Alé euh, ci chaîne bi mu nekkoon muy mu mu tendre ko micro te tey nag gis nga Pape Alé dafa leen xam ba tax ne buy wax dana la génneel eh, audio bi wone ko ci ay live am génneel la dossier nan la contrat baa ngi nii. Mm-hmm. xam nga kooku doo ko du neex a moo tax nag mais eh, nañu boor a bàyyi li ñuy def ni Pape Assane Seck parce que gis nga bu taskatu xibaar waxul ndax moom dafay jàng communication. Mm-hmm. xam ne mu koy jottalee askan bi luy tokk ci noppam rek muy jub te jamono jii maa ngi koy wax di ko waxat rek les sénégalais sont là. dafa am benn affaire boo xamante ni ah, euh, faw ñu wax ko. ñu ñun ñëpp ñu ngi ko ñu wax maanaam wax li fi tege rek ñu ñëpp xam nañ li fi ne jamono bi dëkk bi dafa tàng. Mhm. tàngaay baa ngi dugg. ndox mi. ndox amul. nit ñi xiif nañu. billaay ceeb ba ngeen doon séddale demewul na mu waroon demee. léegi mu commencé jaarul yoon nit ñi dañu mel ni ñu asphyxié climat bi même xam est-ce que xam nga ni dëkk dëkk ñi ko yor bu ñu doxalul yoon. est-ce que xam ngeen ni même climat bi ak ak gàncax geeg yëpp da koy da koy da koy wane da koy wane je sais pas si nos autorités vous nous regardez mais rendez-vous compte du climat bi nekk biir Sénégal ku ragal yàlla def loolu climat asphyxiant mhm. kilifa yi ñuy setaan kilifa yi nag ñoom dañoo am xam-xam xam lu ñu xamul ñun parce que ñoo ñu mag ñoo ñu mhm. ëpp expérience mhm. wante ci constat constat du âge constat lu tege la kilifa yi bàyyi leen xel bu baax la climat du Sénégal a changé on nous dira oh su kii muy wax ni loolu leneen la déedéet taxawaay bi ngeen am si dëkk bi bu ngeen laloo si dëgg rek dëkk bi day set. day naat set nag du waxuma waxu insalubrité. Mhm. set baatin laa wax. tout à mooy dëkk bi am na nu ngeen di taxawee dëkk bi danaa day normal. day barkeel seen liggéey yéen day yomb nit ñi dañ leen di bëgg fu ngeen romb ñu tàccu leen. wante fu ngeen yomb romb kilifa yi ñu yëg ko ñu bañ ko yëg jàpp leen ni nit ñaa ngi leen di teg dañuy wax Assane Diouf. jàpp leen ni sénégalais yi ñi si ëpp ñu ngi def lu raw Assane Diouf lu mu doon wax ñu koy dégg ñu ngi koy wax ci suuf te saaga suuf nag moo gën a bon. parce saaga suuf en la boo xamante ni waa ji même buy julli même buy julli. fi xolam toll yàlla da koy gis. ni ko yàlla di gisee. yéen yéen a ngi def lu leen neex mais noonu ngeen di defee lu leen neex noonu la leen yàlla di defee lu ko neex. tout à fait lii Bab Alé dina. il faut que ñu comprendre que li ñu bëgg a def Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. nii. Mm-hmm. on ne va pas défendre à euh, les yeux aveuglés genre oui euh, parce que c'est Yérim wala non. on défend le métier du journaliste. le métier par le principe. Mhm. mooy que lii waxuñu nag journaliste kenn du ko woo. Mhm. journaliste bu tegul si yoon dañ koy woo. journaliste bu ñu ko jàppee ci flagrant flagrant délit dañu kaa woo ak leneen ak leneen wante liggéey bu nekk dafa m organisation. Mhm. ñoom magistrat yi am na lu leen di protéger. tout à fait ñoom waa ñi ci nguur gi am na lu leen di protéger. du du député am na immunité est-ce que député dafa gën journaliste. est-ce que député dafa gën journaliste. man daal ñi fi taxawal askan bi daal dañu leen war a bàyyi xel bu baax a baax est-ce que est-ce keneen ak keneen ak keneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. juste pour diir que Cheikh Yérim nee na 4 milliards la ñu compté ba woo ab ndaw soo xamante ni banque la nekk mu ñëw jàppale leen ca lañ doon compté kon compté ba metti woon na waaw moom loolu mu wax noonu wax na ñu de recherche wala section de recherche wala la gendarmerie bokk tutelle bi enquête lu na mu ngi enquête ci biir pour xam lu xew lu xew kilifa yi xam nañ ko Cheikh Yérim xam na ko am na nag ñu naan ah attention est-ce que Yérim ko mun naa wax benn affaire personne n'est parfait mun na ne wante toog ci télévision nga tudd Cheikh Yérim Seck tatafatal ay ni tuuti sax xanaa am nga ko ci sa expérience bi nga jàng boo toogee ci télévision naan naan naan nangam lañu ñu compté désigné ko du doit mooy am nga foo ko teg. Mhm. léegi nag kilifa yi li ñu war a def mooy lijjanti loolu mu wax nan la demee fan la demee wax sénégal yi ne leen famille Fares bii loolu ñu leen tuumal am na wala amul. Ah, loolooy ah, dëgg Sénégal nag depuis 2012. ñu wax ko te dee te xam ne yàllaa fi ne depuis 2012. sunu président bii di Macky Sall ak ñi mu àndal. ak procureur bii sama géyeen bii nga xamante ni moom moom moom moom moom fi mu nii il faut il faut ma ngeen wutal ma livreur. mu mhm. yóbbul ko ndekki sama papa bi Basirou dama bëgg dama dama ko bëgg may ndekki tey. Ah, sama géyeen bi moom la procureur moom ak ñi ñu àndal ñëpp. dañu seetlu ne depuis 2012 à maintenant charge de la preuve dañ ko dëpp depuis que Karim Meïssa Wade kaay nga wax ñu fan nga jëlee li nga yor kër gi nga yor ak nangam ak nangam alors que yéen ñi accusé boo nee diw dafa sàcc diw dafa sàcc mm-hmm. da ngay ne lii la sàcc nii la demee wante lii la sàcc nii la demee nga ne ma non kan moo wax li mu sàcc maanaam Cheikh Yérim nga ne sàcc baa nga ni ana sàcc bi léegi na non wax ñu kan moo la wax ne kii dafa sàcc wala wax ñu nan la demee wax ñu kan moo la wax ne gars dañ doon compter wax ñu wax ñu wax ñu wax ñu non mooy loolu am na wala amul am na kon la leen loolu. tout à fait Karim Meïssa kaay nga wax ñu sa kër gi foo ko jëlee non non non yéen yéen a ne sàccee wax leen. bu mu sàccee effectivement nañ bàyyaat xel bu baax a baax rek yaakaar naa ni peut-être malentendu la mm-hmm. ah, xëy na bu ñu waxtaanee ci seen biir jubo ah, ba tey rek ñu wóolu ñi nga xamante ni ñu wóolu ñi nga xamante ni Pape ah, ñu wóolu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi taxawal yoon mm-hmm. am yaakaar ni ñoom danañ doxal yoon incha allahu rabbi ñu dañ doon sottante xalaat wax suñu xalaatee askan Sénégal bi yëpp genn wàllu gi ni ñun la ñuy xalaatee kon nag métier du journalisme waruñu ko bafoué dafa nekk métier bu noble nekk liggéey boo xamante ni euh, bu dul moom rek yéen li ngeen di jottali du jot euh, xool leen ko ci rek point Covid 19 bi waaye nag ñu desandi ba tey ci Covid 19 assemblée nationale Aïda Mbodj moom nee na dafay laaj euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye ay explications. oui par rapport à ci ban faa oui oui si si si si fa dama fi mu sutee dafa neex dafa neex lool sax fi mu sutee ci wàllu métier journaliste. Mhm. xam tax mu neex. Mhm. mais président Abdoulaye Wade moo jël titre foncier suuf jox ko presse sénégalaise xas ma yàlla. tout à mm-hmm. ñun ñëpp ñu am ci droit mu tuddee ko maison de la presse président Macky Sall ñëw nangu maison la presse te. <laughs> Ah, parce que frais presse ko dimbali. gis nga dañuy naan sa président <laughs> président boo ko yaree. <laughs> yow yow nga ànd ak président Abdoulaye waat ba muy def loolu nga neefa. Mm-hmm. nga d'accord ci félicité ànd ci. président yow tam bu la gars yi dugal ci loo xam du dëgg du yoon bu bu def bul yow président sa gëdd romb na loolu maison de la presse presse sénégalaise moo ko moom ngeen jël ko jox ko koo xamante ni Baara njaay la tudd nekkoon journaliste comme ñun Baara maa ngi lay nuyu Baara nekkoon fële ca Canal Info ci jamono Baara léegi nekk on politique c'est très bien il faut dépasser di dem di def li nga bëgg yow mm-hmm. wante def leen affaire bi si yoon maison la presse ça n'appartient ni à Baara Ndiaye ni à am ngeen seen siège bële Barthélémy ne yéen tegu leen ko ci yéen waaye am ngeen siège mhm. jël leen seen siège mhm. les de la presse vous la rendez à la presse sénégalaise mhm. le code de la presse a été accepté le 20 euh, juin fële ca euh, fii en 2017 vous ne parvenez pas à le mettre en en pratique ok but maison de la presse that our house waaw ah sur le cas de Aïda Mbodj tout à fait benn affaire suñu dafa ne moom en tant que député normal na bu ñu demee diir noppi nañu assemblée noppi na depuis trois mois. wala lu teg suñu yaay nee na moom dafa bëgg a xam nag léegi ñetti weer yooyu corona bi mu ñëwee Sénégal ba tey lan la suñu kilifa bi Mansour fay def développement communautaire. Mhm. équité sociale. ak suñu kilifa bi Abdoulaye Diouf Sarr def ci sante loolu laaj boobu jaar na yoon. wax leen ma jaar na yoon wala jaar yoon. ñun ñëpp sax bëgg nañ cee xam dara tout à yow ba nga xam. waaw bëgg naa xam kay yow ba nga xam. indi ñu ay suñu yaay laajal nañu. <laughs> léegi nag question mooy est-ce que dinañ tontu suñu yaay. parce que moom dafa laajte lu ni mel bëgg ñu dem fële ci assemblée waxtaan ak wante problème bi mooy assemblée nationale boobu forage. mais non dinañ ci tontu parce que bu ñu tollee di def ay point Covid def constat euh, de la maladie jusqu'à actuellement de ni ñu ko gérer yaakaar naa ni loolu député bu ko laajee rek pour gën euh, informer askan bi ñoom dinañ ci li nga wax ni mooy yoon. Mhm. li nga wax nii. mooy dëgg. loolu lay am sax am. waaw man nag leeru ma nax dana am. ndax nag ndax nag. koo xamante ni lu ko neex def nu ko neex defee ko. mais xam nga te dina am sax paasan parce que après Covid par force dinañ rendre compte population <laughs> loolu moom force la. <laughs> après Covid moom incha allah képp koo xam ne ne sa loxo da cee takkoon Sénégalais dinañ taxaw nee ñu nee na nag kaay leen ngeen rendre ñu compte. loi d'habilitation loi d'habilitation normalement bu la. bu la delloo lenge non hmm? après ces trois mois dont le président de la République a euh, pu bénéficier de la loi l'habilitation waaw <laughs> man j'ai jamais pu avec ce mot <laughs> mhm. mhm. euh, faral di gis ne moom dafay def compte rendu mhm. bu normal quoi la norme mooy que day def compte rendu askan bi yéen a ma dénkoon lépp luy mën a jiite ngi réew mi nii utiliser ci fànn bi nii laa ci fànn bi fluidité boobu am ba tax ne askanu Sénégal dafay amaat confiance ci ki nga xamante ni moom la fal pour mu jiite ko ma ne est-ce que le président de la République Macky Sall ak ñi mu àndal ak équipe am ak ñi muy liggéeyal ñëpp Mm-hmm. est-ce que rendre nañu compte de 2014 à 2019 sur les promesses qui ont été faites par rapport à chaque région en termes de Kolda 200 milliards wala 150. Mm-hmm. Ndar nangami milliards Ziguinchor 200 milliards euh, Matam euh, Dakar et cetera et cetera est-ce que jusqu'à aujourd'hui l'équipe du président Macky Sall wax nañu loolu fan la ci toll nan la mujjee. Mhm. est-ce que am na région au Sénégal bu jot milliards yooyu ñu waxoon. non Roxaya yow laay bàyyi nga participer. si paasan am na ah, man de gisaguma dara. <laughs> yow da nga ko yëg. non yëguma dara yow. voilà waaw léegi li ñuy wax nii bu mu si kenn mere lu tege la te Sénégal dañ koo bokk ñun ay nawle lañu. tout à fait askan bi dañu soxla lu ñu leeral actuellement mais dañuy dégg rek mais du am suite en fait. mais dégg nga. tàmbale lañ am daal amuñu suite. waaw léegi loolu est-ce que léegi léegi. ñun bu ñu ko wax est-ce que léegi ñun bu ñu waxee loolu ñoom nguur bi dañoo war a song attaqué ñu nañu newu leen si dëgg bu la waxee loolu vous prenez acte et vous rectifiez. tout à fait kilifa yi moo tax sama xarit bi sama asma sama xarit bi ñu nuyu ko Jibi Diallo sous-préfet. <laughs> sous-préfet de Dakar. maa ngi kaa nuyu pré pré. Jacques Boor kilifa bi parce que amul xam nga <clears throat> dañuy bëgg sax di leen jege di waxtaan ak ñoom. Mhm. di leen laaj lan mooy seen jafe-jafe. Mhm. ma gàttal gàttal tëj mooy li woon wónni na na. am na loo xam ne mënatul nekk. Mhm. Sénégal du dëkk bu ñuy imposer gis nga tey pétrole moom ku ci doon sóor deal ak business. Ah. pétrole dee na. coronavirus ñëw na. pétrole mu ngi ci trente six trente sept dollars. day def nii diggante trente cinq trente six trente sept di wàcc di dem maanaam amatul valeur parce que coronavirus moo jaxase carte gi. léegi nag ah. fu nekk nii ku tegoon sa yaakaar ci pétrole pour teg deal. Mhm. dee nga. ku tegoon say bor neuf mille milliards yi bu fekkee ci pétrole bi lañ ko tegoon fouraas gaz bee ñu desi xëy na mu tane. Mhm. xasma yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal. nañu dem tontu suñu yaay bi ay dem Mbodj. te bàyyi suñu suñu naataangoo gi waxtaan ak moom leeral wax ñu fu mu toll. Mhm. ki nga ëpp problème ci Sénégal mooy ñi doon séddale ceeb. parce que sunu yaay nee na foog ñu wax ñu ñan lañu jox ay contrat ñan lañ ko signé ñan ñoo waroon livré ñu livré wul et cetera. Mhm. loolu beneen coow la. ah mhm. scandale au cœur de la République mi ñu a am dëgg. merci beaucoup Papa Sall Abdou Karim Gueye dañ ko dañ ko génnee. Abdou Karim Gueye bàyyi leen ko. nañ ko bàyyi xel bu baax a baax merci merci yàlla na yàlla def ñu yànd si jàmm. allahumma amiin merci beaucoup mu nekkoon suñu actualité du jour actualité day neex xooñ la ci ceeb ba nga xam ne nii buñ ko jiitalee rek kenn dootul tala ci dara euh, ci noonu nag la ñuy daal di rek dem ci suñu société on retrouve Nana Aïdara. alors Nana ñu fas yéene waxtaanee chantage. mooy euh, wax nit ki daal. waaw chantage asthme boo ko déggee wa exactement <laughs> mooy téye ko ci coin téye ko ci euh, poñe ko ci dara daal maanaam loolu la ñuy wax chantage chantage nag bëri na façon am na chantage affectif am na mhm. am na chantage boo xam ne ci wàllu liggéeyukaay la am na mhm. chantage boo xam ne da ngay jël estorqué euh, euh, nit xaalis mhm. chantage dafa bëri façon ñu remarqué ni jamono ji dafa xaw a bëri lool lool lool chantage am na sa ba bii néegu sëy sa jëkkër tey nee la dama la soxla nga ne ko soo ma defalul lii doo am loolu yëpp dafa dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy woowee chantage dañuy rek euh, ci chantage affectif boo ko déggee par exemple asma di génn nag wala am am jëkkëram ñoom ñaa ñu nekk mu ne jëkkër ji bu ñu bu ñu boo boo ma fasee damay xaaru wala boo ma fasee damay lii damay laa donc loolu noonu rek chantage la wa yaa ngi jël tee ko ci point mhm. wala soo ma soo tey damay damay jël sa xale yi dootoo leen gisati mhm. dama lay yóbbu ci yoon wala dama waaw dañuy xool faiblesse bi nga xam ne moo gën a nekk ci yow ñu ñu exploité ko te noonu la amee tamit ci góor ñi góor ñi am nañu ci bëri ñoo xam ne da ngay ñëw demander leen divorce ne leen man kat dama bëgg divorce ñu ne boo divorcé Euh, euh, euh, dootoo gisati xale yi wala soo divorcé dama yàq sa àddina bu dee yow sa jëkkër extérieur la nekk nga tàmm di ko yónni ay photo vidéo mu ne la mm-hmm. soo soo divorcé ma ma ma publier ko donc chantage yooyu yëpp ay xeetu chantage la beneen bi nga xam ne nag peut-être instant bi moo gën a bëri moo gën a courant muy chantage ci bërëbu liggéeyukaay mm-hmm. boo xoolee bu njëkk ba da nga ko daan dégg ci mannequinat bi nga mannequinat bi dafa am chantage dafa am lii dafa am laa mm-hmm. mais léegi fi ñu koy gën a di dégg sax mooy ci série yi ci télé yi ci lii personnellement man dama koy tout le temps dama naan euh, bu may dégg chantage ci télé daf may xaw a jaaxal parce que peut-être man def na ñetti télé yoo xam ne ne gisuma ko fa donc ma à chaque fois dama ne média bi dina dina xaw a lakk ñu bëri parce que euh, bon ñu ci bëri bokk ci média bi xamuñu yooyu mais quant à ci série wala ci ci yeneen ak yeneen ci wàllu publicité ak yooyu danga ko fay faral di euh, gis bu baax a baax jot naa ci wax ak quelque xale yi jigéen malheureusement ñoom ñu génnee seen kanam te hmm. nanguwuñu aussi wax exprimer pour pour pas ñu xàmmee leen mais ñu ci bëri bëri ne ñoom jox nañu loolu da ngay ñëw pour passer casting réalisateur bi jël sa numéro ci suuf ne la fekk ma bërëb sàngam mhm. léegi yow bu dee da nga nooy bopp siw jaral la ko da ngay ñëw fekk ko ci bërëb boobu noonu alors que ni finalité bi mooy jaru ko Mhm. bu dee sa wërsëg la danga nga ciy nekk par force. bu dee sa wërsëg aussi nga jàll seeti ji leneen. ci tamit promotion canapé dafay dugg ci chantage. parce que da ngay gis nit ki mu nekk ci soxla loolu mhm. nana mu bëgg liggéey ndeysaan mhm. nekk sax soutien de famille léeg-léeg ñu naan la muy jigéen comme góor euh, ñuy naan waa boo ma defalee lii wala boo nangam lii wala lii ak lii kaay ñu siq lii pour ma jox la lii je pense que nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax je crois que les gens ne méritent Mm-hmm. tey jigéen nag ñoo koy gën a subir sax ko mm-hmm. góor ñi mm-hmm. jigéen ñi koy gën a gën a gën a metti lu aussi ñoom lay gën di dal da ngay gis nga am compétence lool am potentiel boo xam ne ni mën na tax nga liggéey liggéey bërëb sàngam nga dem directeur bi nee la il faut nga aw fi say morom aw boo fa awul amaana doo am liggéey boobu ñu ci bëri bëri bëri bëri ñi ngi may seetaan dal na leen peut-être da ngay ñëw am sax ëpp diplôme ki nga xam ne ni moo fa nekk mais tellement que ni awoo bëggoo aw moom fi mu aw léegi yow tu es obligé nga toog sa mhm. ne ne ñoo nekk ci seen place sax mérité wuñu loolu ndax tout simplement ñoom ñoo ngi nangu ñuy aw ci seen kaw ñu leen di fekk ci ay auberge ñu leen di fekk fii ñu leen di fekk nekk fële. Mhm. donc mu nekk loo xam ne ne lu ci bëri bëri bëri jigéen ñi ñoo koy ñoo ñoo koy dund comme sànq maa ngi doon wax ci série yi mais noonu la amee ci cadre publicité tey da ngay ñëw ne danga bëgg pub lii ak lii dem casting nga yëg casting am kenn ku fa jël sa numéro. nee la après danga may fekk bërëb diw ba pare nag teg ci di yàq deru ñi nga xam ne ñoo la jiitu ci milieu bi daan diw noonu la def ak diw aw naag fiig moom diw aw naag fiig moom te ñu nekk ci média xam nañ li may wax dafa xaw a jafe lool parce que hmm. tout le dafay nekk en jeu hmm. da loo xam ne yow sa yoon nekku ci ñu tudd la ci alors que ne yow fekkee woo yëgoo taloo donc mu nekk loo xam ne ne mu ñaaw trop trop trop trop loo xam ne ne mi ngi xew actuellement beneen hmm. chantage bi nga xam ne nag actuellement moo gën a bëri muy photo ak vidéo ay Mm. moo gën a bëri da ngay yox photo jàmbur wala vidéo jàmbur coince ko mm-hmm. jël ko def ko ci sa iCloud wala tey jii def ko ci sa keep safe teg ko foofu noonu di xaar kooku am benn ngeen am benn euh, contentieux rek mm-hmm. nga génne ko publier ko wala nga ne nga ne ko carrément soo ma joxul temps ci xaalis damay publier say photo soo ma joxul temps bon soxor la man pour man loolu dépassé na sa cadre soxor mm-hmm. nekk nekk la ci boppam mm. dafa am ñoo xam ne yàq doomu aadama dalee na neex am na ñoo xam ne mun nañu yor say vidéo say photo lu yàgg ay ati ati at di xaar sax nga nekk célébrité wala peut-être yàlla ubbil la benn benn buntu wërsëg bi seen xol siisu ci ñu yónnee la ci saa si message nee la danga may jox temps soo ma joxul temps ma ma publier ko. ma mhm. ma ma ma génnee ko. Mhm. léegi yow bu dee tamit ku ragal nga peut-être dem nga ba am ay doom période ba nga ko doon def xale nga woon xale moo la jàpp dem nga tey ji ba am jëkkër am belle famille bëggoo ñu xamal la yenn yi nga nekk di verser xaalis au nga dem euh, euh, euh, condamné c' est condamné boo boo jëlee nit di ko chantage tey di kooku bu demee porter la plainte sa tëj xaj na ci donc ñu ci mm-hmm. bëri nag xamee wuñ ko noonu ñu ci bëri dañuy jéem a suturaal seen bopp ñu ci bëri dañuy jéema di mm-hmm. tout à fait <laughs> xam nga man damaa bëgg yi Abdou Aziz yi lay def ak yeneen seetal li ñaw ak dafa dégg xolub iñaan baaxul di lan la ñolee way li ki ñaan ci ki ñaan la dafa tardé Abdou Aziz yokkal lii rek laa mën dégg ngeen. xolu ki ñaan dafa tardé Ndiolé Tall waynu la am solo macha allah ki ñaan dafa tardé. Mhm. tout mhm. Mhm. a fait. nana Alioune Badara Bey nee na man dama koy chantage bëgg naa ko laaj ci naka. <laughs> moom day dem ci Myriam 17h xëyee ma. léegi bëgg nag na far fenn. ah non bàyyi ko rek bàyyi ko fi mu dal yëpp a baax bàyyi ko mu daal di sànni fi tànk sànni fi tànk donc asma ma ko ma ma ko doon wax ba chantage mooy ci photo yeeg vidéo yi mu mu nekk loo xam ne actuellement lu bëri loolu la parce que technologie bi moo toll foofu noonu da ngay gis koo xam ne ni tey jii nii da nga ko xamal dara nga nga wala journaliste yi am na ci mhm. ñenn ñu ma ci saña wax ci site yu ndaw yi nga xam ne ñi ngi soog a génn tey jii nii bërkaat démb binta ba mi ngi ma yónnee benn article ñuy wax ci benn télé de la place wax ju ñaaw naan mhm. ay foofu am promotion canapé yu kenn mm. xamul mm. billaay wax ju ñaaw ñaaw ci benn télé de la place donc mu nekk loo xam ne da nga koy seetaan nga ne lii nan la mën a nekkee nan la nit mën a génnee lii bëri na ci ay journaliste ak ñi ma ko sañ wax ñoo xam ne dañuy am information au lieu ñu dem ci woo nit ki ne man de xam naa lii ak lii ak lii est la mais non dañ la man de ma dara ci yow nga tiit sa àddina yàq boo ko boo ma joxul temps dama koy publier qu'on se la vérité ci fii lañ nekk mm. tey doxatul ak réseaux sociaux yi mais waykat yu bëri ñu jigéen ñi ak ñi ma ko sañ wax pour ñu tagaan seen way sax il faut ñu am fu ñu aw ak animateur bi mm-hmm. pour nga mën a am visibilité bi nga bëgg pour nga ñu mën a de ah Paasan xam nga li ma lay wax. xam nga ci dara Paasan justement. sa parce que xam nga diggante télé ku la jege yow jigéen léegi mi ngi France waykat la woon loolu moom moo ma ko expliqué. te war nga boo boo sa maan war nga li may wax. man mi sax xam naa ko mu doon moom moo ma ne carrément nana bu njëkk léegi sax la affaire demee nii mais bu njëkk ba nga xam ne da ngay soxla visibilité soxla ñu lay teg ci rajo yi animateur danaan la carrément fekk ma bërëb sàngam. <laughs> te alors que ils sont censés se compléter maanaam animateur bi sans mhm. woykat bi du dem mhm. woykat bi sans animateur bi kay defal mhm. promotion moom du dem ils doivent se compléter euh, kon nag Pape Assane yow mi nga xamante ni euh, miin nga diggante télé euh, média ak li nga xamante ni moom mooy studio lan nga ñi mën a wax ci chantage ci wàllum boobu et foofu la ëppee sax ah li ci ëpp ah ci mais ci ci. ci est-ce que en fait je suis un peu confus. Mm-hmm. Euh, parce que <clears throat> lii nanaa wax. ci ci mm-hmm. c'est am na am na lu am la c'est am na li ñu naan li li tege kenn du ko dindi. Mm-hmm. te dëgg du romb nopp. dëgg du maasu fen am na loo xamante ni boo mën nag mën nga nag rafetal. mais am na loo xam mënoo ko dindi. il est arrivé c'est vrai que que des animateurs euh, fonctionnent ainsi du ñëpp nag. Mm-hmm. am na si euh, ñoo xamante ni comme ni mu amee ci journaliste yi ñoo xamante ni voilà dañu mel ni man euh, jox ma ma def. ñu mel ni man. Mm-hmm. tu donc ñoo xamante ni daal mais loolu malheureusement la vie est ainsi faite sauf que c'est aussi à dénoncer. comme comme elle elle le fait. <laughs> du yoon rajo bi wala télé bi fay la salaire. ngay def sa liggéey dégg nga iñaan xolu iñaan boobu maxu lébu gi way nga dégg li woykat yi xolu ki dina lekk borom ba mu jeex mhm. te du ci mën dara mhm. yal ci yàlla musal mais du yoon tey ngay def sa liggéey ñu fay la salaire mhm. ne la toogal ci rajo bi def tenue d'antenne de telle heure à telle heure sa liggéey mooy programmation fii sax ñun suñu rajo ñooy fonctionner bàyyi animateur bi muy def lu ko neex programme mais une radio normale comme ça se faisait dans le temps dafay am directeur de programme qui ficelle la chose am un régisseur qui s'occupe du contenu gestionnaire de contenu bi nga xamante ni moom mooy ñëw ne par exemple je donne un exemple comme radio nostalgie wala wala rajo yu mag yi nekk ci en Europe wala feneen on écrit on dit tey lii mooy jàll l'animateur tout à fait il vient la chose xam nga kooku du fa nekk di calculer jox euh, maak jox ma day def liggéeyam dem. Mhm. fii nag on a laissé une tendance boo xamante ni l'animateur moom mooy ñëw gàddu saagam day gis boo xam ne mën na la jàpp benn waykat mi la. dëgg la c'est parce que ni muy demee la mhm. am na koo xamante ni moom mélomaan la mhm. animateur def liggéeyam nu mu waree mhm. du ñëpp nag am na ñu baax am na ñu baaxul mais li nanaa di wax y a une vérité am na jamono boo xamante ni effectivement boo boo joxewul gars yi da ngay génne produit sax euh, moi je me rappelle euh, am na benn moment dañ ko doon waxtaane ci jamono ci fenn di wax ne non non non on va pas donner de l'argent on a fait un super produit. Mhm. mais euh, au-delà même de l'argent on parle aujourd'hui de bërëb sàngam bu ñu koy déggee mooy sa bopp. Mhm. il faut que nag ñu jaar si digg si biir nañ loolu li muy wax nii góor ñu ci bëri. Ah, ah, waykat yu bëri ñu góor ñi nga xam ne ne ni peut-être ku góor ki doo ko soxla danga koy laaj xaalis. Mhm. am am na ci kenn ku ma ku ma expliqué ne ma am na ay jamono yoo xam ne ni pour ñu teg sa son dangay joxe da ngay son bu nekk saay bu ñu ko tegee junni la. Mhm. imagine loolu. maanaam saa ñu ko tegee waa la kon ñu ko tegee dix fois dollars. waaw léegi yow léegi yow ngay da jënd rek. comme mhm. ku ku war a jàll wone ma rek ñu ne la boo bëggee. <laughs> ja non sérieusement boo mhm. bëggee jàll dangay ngay fay temps pour nombre de kii mu nekk loo xam ne ni lu lu luy faral di xew la. mais peut-être xoolal. mais am na côté peut-être baal ma ci benn seconde. am na côté boo xamante ni l'artiste. xolam dafay sedd. mu ne diw daal vraiment il il bien daal di xaaral ma woo ko. wala paasan jox ma numéro diw vraiment dama ko déglu mais macha allah yónnee ko xaalis wala yónnee ko parfum wala tukki indil ko dara. loolu teraanga la suñu biir. Mm-hmm. mais exigence bi ci am nag après. Mm-hmm. nga xam ni yow waa moom dafay xaar boo ko kiiwu du def la chose alors que tu as fait un super produit mhm. loolu dafa injuste mhm. pour appuyer li ngay wax nii mhm. parce que dafa am solo dañ koy dégg dañ gis ci média bi milieu showbiz da ngay dem a def casting fenn ñu leen na yow yaa gën a yow yaa gën a compétente yaa gën a aay keneen ki jékki-jékki yow ñu teg la fële daal di jël keneen koo xamante kenn xamul sax fu mu jógee donc yooyu yëpp daf fee bëri surtout nag ci domaine bi ngeen wax nii ci milieu musique bi daf dañuy am talent mais nopp naa la nobbu ma la aussi c'est un problème Sénégal da ngeen soo xamante ne patron day am ci moom sentiment mu mu mu réti mu réticente a ne kii sama patron la am na fu ma yem ak moom mu yàqal lu bëree bëri surtout jigéen ñun ñu ci bëri moo tax sax ñi ci am jëkkër ñu bëri am problème mu liggéey après parce que da dem ñu lay chantage ok sax pour pour appuyer la foofu noonu ñaata yoon ngay dem ci bërëbu liggéeykaay ñu lay laaj yow bu dee bu dee yow da nga ñëw juste parce que da nga da mën li ngay def da nga ñëw parce que da nga say diplôme da nga ñëw parce que tu es compétente lan mooy ndax danga am jëkkër boo waxee ñu ne noo dañuy xool mhm. temps bi dañuy xool ndax ci liggéey bi di nga ci mën a concentré wu ma je dis parce que yow nit ki bu nekkee célibataire mun na fa dugg après mu am ñu takk ko est-ce que da koy dàq mm. donc man man je trouve que boobu noonu lu yenu maanaam en général booy booy demee xawal nga teggi waat tuuti sa tànk parce que dis-toi que ni kii bëggul jàmm moo tax góor ñu bëri nee ñu ngi ñu ngi pardon parce que nee bu ñu demee duñ leen jël jigéen ñoo gën a ëpp possibilité pour ñu jël leen mm. donc loolu aussi c'est un problème nañuy xool compétence bi muy def mu ngi ci bay waaram mais surtout beneen point bi nga laal réseaux sociaux yi maa ngi am lu ma gis vite fait rek dama ko déglu audio bi nee dafa benn euh, tubaab la ku jigéen dafay dafay ñëw euh, demande la am yi ngeen xaritoo asma mhm. mu ñëw comme ku góor la nii mu ne yéen mu ne daf daf la nopp ngeen di mu lay mu lay mu lay charmer et tout xam nga jigéen ñi rek góor ñi ak ni ñu mel ci jigéen nga ne jàpp naa jàpp naa bu xees jàpp naa jën bu baax <laughs> donc mu lay mu lay voilà def loo vidéo ngay simmeeku et tout mu lay xool après da chantage danaan la soo ma yónneewul temps mu publier ko ci réseaux sociaux yi maa koy gis ñu koy jàllale temps c'est grave il paraît que benn gabonais moo koy def bon bëgguma sax tudd nationalité mais on est un peu obligé mhm. pour wax ne ni carrément ñëpp ki kay def sax du du du tubaab comme niñ ko yaakaaree kenn la ko xam ne dafa toog fi mu toog yor machine am di wax lu ko neex di di la di la def loolu lu ko neex su paree voilà su su paree nee la carrément soo ma yónneewul temps mun nga fekk sa vidéo ci si boobu noonu yow ani boobu noonu. ñu war a yeew bu baax a baax. justement mm-hmm. aspect boobu laa bëgg ñëwee tamit nana dafa fekk ni euh, nit ki luñ la def dafay fekk nga nangu. Mm-hmm. boo nangoo da ngay jox courage kooku mu répété waat la même leçon c'est-à-dire dafa toll ñun jigéen ñi ñu defaraat bu baax a baax. Euh, suñu toggaay ci yenn ñi ñi ñi ñi luñ naan nangu euh, euh, nangu na cëru ku bañ. xaw nangu jël na cëru ku bañ. nangu jël na cëru ku bañ jël na cëru ku bañ xam nga nit. loolu ñu tardel ñun bu ñu doon dañoo manko ñun ñëpp bañandoo benn affaire je pense que dootu fi amati. mais yow li ngay li ngay bañ moom la sa morom di nangu. Mm-hmm. léegi duggal ci entreprise yi sélectionné tuñu koo xam ne dafa mën liggéeyam dañuy sélectionné xale bu rafet mais pour lan loolu yëpp bon bu dee ci télé peut-être sa peut comprendre tuuti. parce que télé image la waaw image la peut te baax na ci aussi des fois sax nga gis koo xam ne dalay leer ni kii euh, euh, journaliste la muy def journal kooku zappé am na télé yu bëri ñu fay def journal dañ leen di def. genre paasan gi seetaan nañu journal bi mais nit ki lañuy seetaan bu nekk seetaan donc côté télé média yi noonu xaw naa xaw comprendre tuuti mhm. mais tey boo demee ci yenn société yi bu dee dañoo wax ni rek ku rafetul doo fi liggéey kon xale jigéen ñu ñu ñu ñu ñu bëri ñu mel ni nanaa dootuñu liggéeyate mhm. mais bu ñu demee ba léegi yow ay rafet nekk ci critère liggéey pour lan waru waru waru bokk ci critères yi et c'est ce qui emmène tous les toutes les problématiques euh, tey nana euh, de la société euh, sénégalaise tey ji da dem banque mhm. wala nga dem feneen ak feneen les gens sont désagréables parce qu'ils ne ils n'ont pas le mérite de leur mhm. poste li ci ëpp tey ji nga dem euh, euh, foo xamante ni Sénégal laay gis mhm. ni nit ki dafa war a def liggéeyam yow boo ko santee da ko war a neexal mhm. ils n'ont pas le mérite de leur poste justement Pape Assane euh, comme ni nga ko doon waxee sànq mooy amul euh, fil conducteur bu mm. mm. bu leen di won ne fii ngay aw fii ngay aw euh, infuser ko nit ñi ba ñu mokkal ko ba tax ne kenn ku ci nekk da ngay jug def li la war ndax moom mu nga méritoo sa salaire quoi des fois da dugg ci bërëb secrétaire bi réew a réew a réew bu mel ni nana tu te demandes mais lii comment c'est possible mais attends secrétaire bi bu dee dafa xam ni patron bi mel ko fu koy fu mu jaar mu réew mm-hmm. des fois nga gis koo xam ne euh, euh, patron boo xam ne ki muy liggéey sax mënatu koo respecter mm-hmm. loolu lépp lan moo koy indi parce que tout le temps dangaa dangaa tàmm di jëflante ak sa ak sa patron ci yenn yi da ngeen tàmm di fekkante auberge tàmm di fekkante te bu la ci kenn nax buñ la jëlee ci plan ci noonu jëlee la ci promotion canapé après xam nga fan lay mujj bés buñu la suuree doya ci yow dañuy ñëw jëlaat xale bu gën a tooy tegaat ko seen wet mm. ça mm-hmm. marche comme ça qu'on se dise la vérité bu dee du say compétence ñoo la fa teg imaginal xale boo xam ne ni amul ndox yi bopp yoolu awoo ci benn formation amul ndox yi bopp non sérieusement awoo ci formation awoo ci liggéey amoo diplôme yow léegi ñu ñëw jël la parce que dangaa jekk dangaa taaru am nga ginnaaw am nga kanam ñëw teg la fa mais da ngay xool benn un à deux ans dootoo fa gisati dañuy xëy gisaat keneen te ji nga patron kan la gën a respecté kan la ñu gën a respecté ci entreprise mooy ki nga xam ne moo ci gën a téye boppam ki nga xam ne dafa dugg ndax diplôme ki nga xam ne ne. ñëpp sax kooku la moom la ñu gën a moom la ñu gën naw donc loolu noonu yëpp defe naa ni lu jara jara bàyyi xel la ci diggante ki nga xam ne day liggéey ak ki nga xam ne ni moom moo koy jël. pour lu loolu perte double fois la. Mhm. ni ngay sonn di dem di liggéey di perte ba pare ñu lay woo di la jox rendez-vous muy beneen perte. mais imagine euh, euh, euh, rokkay foo dem war a joxe sa bopp seet xeetu coono googu rek bopp nu mu soree ci jigéen yow le seul bien-être mhm. jigéen am bien bu précieux mhm. boppam la nga koy mhm. pasar pasaree nii ndax euh, àddina mais mais man duma ma sax wax jigéen man tout le temps damay wax rek ñi koy def parce que boo jëlee place ki nga xam ne dafa ñëw ut si liggéey nga teg fa sa sœur teg fa sa yaay boo ba mu ci tollee du am na yoo xam ne di nga ko néeg a def mais dafa am góor ñoo xam ne ak ñi ma ko sañ a wax xolu yërmande moo moo moo dee ci ñoom donc juste rek euh, asma alerte la woon comme ñu ko paasan wax waxee comme que des fois alerte dafa baax. Mhm. nga xam ñu xam ne ni carrément nit booy liggéey na la fa say compétence yóbbu na la fa bu boo amul nga xam ne ne du sa chance bu doon sa chance la ala kulli al ak ni mu mënti demee da nga ciy jot mais bu yàlla nee du fii rek bul forcer bul bul déem a euh, sànni barrière yi jàppal ni du fii nga dem xooli ji leneen li nga wër di wër di wër incha allah ba daj li nga xam ne mooy sa wërsëg mais bu dee da nar a joxe sa bopp de gauche moom mooy waral patron bi pare keneen bés bu ñu doyee di jël keneen benn solo. heureusement ba du ñëpp am nañu baax ci dëkk bi. am nañu mën a jàppale nit. waaw am na ñoo xamante ne dañ lay jël. sa ëpp sax foofu. dañu bëri ñooy ëpp ñu baax ñu benn doomu pomme de terre wala soble bu mhm. nekkee ci saaku soble bi. Mhm. dina infecté ñi baax ña ca nekk moo tax dafay mat ñu leen di fàttali nii. Mhm. lii du suñu waraf te ñun nag dañoo riche cosaan dañoo riche culture dañoo noble histoire. kon nag surtout jigéen. surtout pourquoi damay naan jigéen du euh, damay euh, mettre tout le monde dans le mm-hmm. même sac mm-hmm. mais c'est tout simplement pour rappeler que euh, kenn ku ci nekk dañuy naan boo defaree benn jigéen defar nga àddina mm-hmm. kon imaginel jigéen yëpp defaraat seen jikko yéenante lu baax xamante ku ci nekk sa valeur u morom di jox. Mhm. sa morom. nana mhm. tey dara du ko dàq ndaxte àdduna bi ci lay defaroo. sa am na benn waykat mi ngi may yónnee message nee na moom dafa am talent as asma mais boobu ba tey mënu fexe ba percé ma du ma du ma du ma tudd turam génne na fan yi benn clip bu bees. ay ministère ñëw na. ay Cheikh Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous du communiqué numéro 108 de ce mercredi 17 juin 2020. Le ministère de la Santé et de sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 970 tests réalisés, 122 sont revenus positifs. soit un taux de positivité de 12,5 pour cent. Les cas positifs sont répartis comme cent 111 cas contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grand Yoff, 1 cas. Kër Mbaye Fall un cas Zac Mbao un cas Kër Massar un cas Pikine un cas et Touba patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Trois nouveaux décès à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs, dont 3606 guéris, 73 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect des mesures de prévention collective et individuelle à l'intérieur de nos communautés. ce mercredi 17 juin 2020, ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ñaar ñoo ci positif téeméer ak fukk ak benn di ay kaa contact fukk ak benn yi ci des di ay cas communautaire mu am ñaar ci Liberté 6 benn ci Grand Yoff benn ci Kër Mbay Fall benn ci Zac Mbao benn ci Kër Massar benn ci Pikine ak ñeent ci tuuba juróom-ñett fukk ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom benn ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu démb mardi 16 juin gis nañu ñetti malade yu ñàkk ba seen bakkan fii ci suñu service yi Sénégal loolu ci récapitulatif bi ñu def démb mardi 16 juin maa ngi koy fàttali ñu am ñetti malade yu ñàkk seen bakkan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am wàññi nañu juróomi junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeenti cas yu positif ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn wër nañ ci juróom ñaar fukk ak ñett ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg bés bu nekk ak digle yi nga xam ne moom lañuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jaajëfal docteur Aloïse Diouf moom mooy directeur de cabinet bu ministère de la santé tey moo ñu defal le point du jour ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk bu 10 heures jotee ñu leen di jaajëfal yéen ñi nekk rendez-vous ngir nag euh, mën a xam lépp lu euh, so euh, soxel li nga xam ne moom mooy mbasum Covid 19 gi fii ci réewum Sénégal point bi nag lii la joxe junni yu manqué fanweer lañ jot a testé ci ay doomu aadama bi ñu leen testé ba noppi jàppale ne kon téeméer ak ñaar fukk ak ñaar la ñu gis ne ñoo amee jàngoro ji si téeméer ak ñaar fukk ak ñaar yooyee téeméer ak fukk yeex benn yi euh, cas contact la waaye it euh, fukk ak benn yi dañu di ay cas communautaire cas communautaire yooyee euh, tey ñu nemmeeku leen ci gox yi ci mel ni kon Liberté 6 ñaar la ñu fa nemmeeku Grand Yoff benn Kër Mbay Fall benn Zac mbaaw benn Pikine benn Kër Massar benn Touba Dikk am ñeenti ci ay kaa communautaire kon nag juróom-ñett fukk benn maanaam 81 ñu nga xam ne ni jàngoro ji la leen tëraloon faj nañu leen ba du wér kon 81 guéri yi la ñu am fukk ak juróom benn ci ay cas grave ñooñee jàngoro ji jot jamono ji ñoo ngi ca euh, Sowétas beneen xibaar bu euh, naqadi moo di tey ji it wàññu nañu ñett si ay doomu aadama yi nga xam ne nii mbas mi def leen faat démb juróom-benn la euh, ñoo si faatu tey ñu yokk si kon si lim gi ñett kon nag ñett faat nañu tey ji bi jàngoro duggee senegal ak léegi ñu ngi ko xayma si ñetti si juróomi junni yu doftal ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñu mbas mi laal lu toll si ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn si ay doomu aadama faj leen ba nu wér treize kon lim gi foofu la toll ñiy faatu si woppi Covid 19 gi junni. ñu toftal juróom benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ne ñoom la ñuy faj jamono ji te euh, wërëgunu loolu moo nekkoon le point du jour euh, ñu jàll nag si ñu koy defee bés bu yàlla sàkk doxantu bés euh, département bu Pikine fekk fa Idriss Diémé borom masque yu bari yi tey ñu xool ban masque la ñuy àndal ndax daf ñoo war a defal le point foofee sa département bu Pikine ndax foofee lu mu gàtt gàtt jàpp leen ne 500 ci ay cas yu ñu testé positif wàññi nañu ko fa ci département bu Pikine Idriss Diémé nuyu naa la. Mbaye euh, ma lay di wax ni rek euh, point du jour euh, ba su mercredi bi daanaka benn taxaw seetlu la ñuy def ci benn département bu Pikine gis nañ ni que ba mbas mi tàmbaleeg léegi jàppale ni egg nañ ci kapu cinq cas bu positif jëmee ci wàllu coronavirus fii nga xam ne moo nekk biir département bu Pikine ak ñeenti district sanitaires yi fi nekk waaye ci yooyee 500 cas gis nañ ni que sax mbaaw ba léegi moo nekk district bu ëppale ay cas daanaka mbaaw ak juróomi commune ñoom toll nañ ci cent quatre-vingts cas gannaaw jàngat bu ñu mujjee def waaye gis nañ ni que ci yooyee cent quatre-vingts cas moom mbay mënees nañ wax ni bëri na lool ay cas issus de la transmission communautaire idem fi nga xam ne moo nekk euh, district sanitaire euh, bu ma Massar moom la tamit toll nañ ba mbas bi tàmbaleeg léegi euh, ci quatre-vingt-dix-sept cas ci yooyee quatre vingt mënees nañu wax ni sax presque euh, trente yëpp daanaka ay cas ici de la transmission communautaire la euh, ci noonu itam gis nañu que district euh, sanitaire bu yëmbal ñoom tamit ñu ngi ci quatre-vingt-dix-huit cas Pikine nag district sanitaire am ñoom ñu ngi ci cent vingt-cinq cas kon donc yooyu yëpp Mambay bu ñu ko boolee loolu moo ñu may ñu egg daanaka démb ci ngoon kapu 500 cas positif li jël wàllu coronavirus ba mbas mi tàmbaleeg léegi ci biir département bu Pikine mu nekkoon Mame Mbaye point boo xam ne indil leen leen ko ñu joxante dig daje ëllëg ci beneen numéro lu ñeel wàllum point Covid ñu bàyyi leen rek ngeen wéy émission suba teel. jaajëf Idriss Diémé gis nga borom masque bari Aziz nee euh, booy wàcc jaru ngay jaar si escalier yi teel ci kii bi rek masque bi rek def si au para wàcc Idriss Diémé bés la gars yi dina si moom chaque jour ak bu nekk ci département bu Pikine yëpp dañu koy sponsorisé jaajëfal ko moom Idrissa Diémé rendez-vous demain yow euh, Idi dañuy desandi euh, foofee nga xam ne mooy ci banlieue bi ak docteur Alioune Badara Kane Diouf moom vétérinaire lay spécialisé euh, ci wàllum alimentation foofee jot nañu fa séddale ay masque waaye it dikkaat na si nees koy wàllantee li nga xam ne moom mooy jàngoro ji ndax takku masque yi solo si si am ñu teewlu ko ndax moom daal di dikkaat feebar bi feebar la boo xamante ne xeex bi xeex communautaire la c'est-à-dire jamono ji dañ toll foo xamante population bi ñoo war a xeex feebar bi ndax feebar bi mu ngi si ko muy mooy koy jàllale mais vivre avec le virus nekkul da dem songu virus bi te da fexe nooy moytoo doomu jàngoro bi noo koy moytoo nag mooy lan mooy ñu utiliser les mesures barrières bokk na ci mesure barrière yooyu mooy maanaam tey euh, ngay raxas sa loxo ba mu set parce que virus bi ñu nekkal enveloppe boobu noonu dafa riche en graisse graisse bi mu riche nag tax na ba du résister saabu du résister eau de javel du résister alcool ba tax na ñuy préconiser nit ñi à ce que ñuy raxas seen loxo tout le temps parce que tant ñoo ngi raxas seen loxo rek dinañ am possibilité mën a xeex doomu jàng mais aussi ñu xam ne am na distanciation sociale bu war am suñu diggante ñun ak nit ñi parce que tamit euh, virus bi dafa bokk ci xeetu virus yi nga xam ne ñoo a tax na nit ki buy projeté tamit virus bi muy génne ci bakkanam wala muy génne ci gémminam du daw lu mat un mètre pour mën a wàcc ci suuf donc nit ki tànk yaa ngi koy moytu rek donc mooy ko un mètre rek mun na la bañ a wàll doomu jàngoro bi. voilà docteur Alioune Badara Kane doon andi ay leeral ci ah, jàngoro bi nees mën def bu dugg ci ah, ah, moroomam gannaaw bu mu duggee ci kenn ba noppi wàllante gi moom wax na ko cas communautaire li koy xeex mooy xeex communautaire moom foofu la génne docteur Alioune Badara Kane ñu dikk ci les localités les plus touchées Dakar ouest sud nord centre loolee dafay firndeel ne eh, diwaanu Dakar mooy épicentre bi lu jigee kon juróom-ñetti téeméer ci ay cas wàññi nañu ko ci gox yooye fu si nekk Touba ñëw tegu sa am ñeenti téeméer ak boo doxantoo sa géejawaay ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay doomu aadama la mbas mi laal mbaaw 180 145 ca goxub kumbam lamb tëngee téeméer ak ñaar fukk juróom sa Pikine Sangalkam téeméer yi toftal fukk benn téeméer ak juróom-ñett nga am ko sa Sédhiou 99 euh, nga am ko sa Thiès yëmbal euh, Kër Massar foofee fu ci nekk jigéen a kon euh, téeméer ñu jàll ca Vélingara 70 68 Diamniadio 63 nga am ko ca Goudiri Ziguinchor nga am fa juróom-benn fukk benn sa Pout juróom fukk ak ñeent ca fi nga xam ne moom mooy Popenguine Mbacke 50 Louga 31 cas Bour vingt 27 nga am ko ca Tivaouane euh, Tambacounda nga daal di fay am 22 euh, euh, fi nga xam ne moom mooy Kaolack nag 17 la ñu fa xombool Xombol foofee ñu am fa fukk noonee la ñu amee it Bunkiling 10 Matam 10 Bignona Diourbel fu si nekk juróom-ñaar ci ay cas mu mel ni kon Oussouye Saint-Louis Mekhe Linguère foofee si nekk juróom-benni doomu aadama la mbas mi euh, laal jululu jàpp kon ñoro di rip foofee ñeenti euh, cas nga fay doxoon nga fay nemmeeku boo doxantoo ba sa caajaay Richard Toll euh, Koungheul Fatick foofee boo fa demee it gox bu sa nekk ñetti doomu aadama la mbas mi laal Joal Koki Thilogne fu si nekk ñaari doomu aadama la mbas mi laal fi nga xam ne moom mooy Sakkal Daaru Muxti biir Kilaan Diofior foofe it euh, jàpp leen ku fa nekk mbas mi benn euh, doomu aadama la fa laal jaxaaw noonu la Kébémer Kédougou euh, Ranérou foofe boo fa demee fu si nekk mbas mi benn doomu adama la fa kon nag bu nu koy xayma boo ci génnee limuk tey jii cas contact yi ëpp na kon ñeenti junni cas communautaire yi boo si boolee fukkax benn tey yi mel ni kon dafay nekk juróomi téeméer yu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom maanaam 594 cas importé yi dafay nekk téeméer yu toftal ñaar juróom euh, benn jàngoro ji ci euh, réew Afrique yi maanaam ci continent bi euh, bu ñu koy xayma 243 589 ci ay doomu aadama la laal ñi si faatu ñu ngi toll ci juróom benn junni yu toftal juróomi téeméer ak ñeent fukk juróom benn ci ay doomu aadama adduna bi wërngal këpp nag jàngoro ji mu ngi wéy di dicté ay loowam li koy firndeel moo di 8 millions 52 mille 90 ci ay doomu aadama la mbas mi laal ñi ci faatu ñu ngi toll ci 437 283 loolu mooy lim gi nga xam ne am nañu ko ni ki tey jii mu mel ni kon docteur Aloyse Diouf la ñu àndaloon tey jii directeur de cabinet bu ministère de la santé le point du jour lii la joxe mënoo euh, maanaam junni yu manqué fanweer ci ay doomu aadama la ñu jël daal leen defal test yi si ñooñee téeméer ak ñaar fukk ak ñaari dañu dikk am euh, jàngoro ji ñooñee nag bu ñu koy bu ñu koy wasaare euh, téeméer ak fukk ak benn yi dañu di cas contact waaye fukk ak benn yi dañu di ay cas communautaire cas yi ñu ne meeku leen sa liberté 6 ñaar Grand Yoff benn Kër Mbay Fall benn Zac Mbao benn Pikine benn Kër ma Massar benn waaye fii di tuubaa ñu am fa ñeenti ci ay cas communautaire ñi ñu faj ba nu wér juróom-ñetti fukk ak benn euh, si la ñu euh, toll fukk juróom-benn ci ay cas grave la ñu am ñooñee dañoo euh, lottu ba jamono ji ñoo ngi Sowétas ñett ci ay doomu aadama mbas mi yóbbu na leen danoo faatu ñoo yokk ci lim gi ñu amoon démb maanaam juróom-ñaar fukk amoon démb ñu teg si ñett yi ñaar fukk ak ñett 73 la lim gi toll bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi ñi mu laal nag toll nañu si euh, juróomi junni toftal ñetti téeméer ak euh, juróom benn fukk ak juróom ñeent mu mel ni kon euh, ñetti junni toftal juróom benn téeméer ak juróom benn la ñu fecc ba nu ñi si faatu 73 la jamono ji ñu ñuy fecc te wéraguñu ñi ngi toll si junni ak juróom benn fukk ak juróom ñeent duñu ko tay di ko wax bàyyi leen xel bu baax ne donte oyofal nañu mesures yi waaye nag nañu respecté mesures barrières yi takk masque yi maytu rassemblement yi donte autorisé nañu ko si lanu ko tere woon maytu ko bu baax ndax nag loolu rek moo ñu mën a muccal si mbasum covid 19 gi rendez-vous su dee soob na borom ëllëg lay doon 10 heures ñu àndaa waa ministère de la santé asma baax a baax mu amoon solo lool di la nuyuwaale rek di la euh, waa jaajëfal saa su ne rek voilà may may nuyu waa plateau suba teel di la nuyu lay fay <laughs> waaw kay nag di la jaajëfal dig daje ëllëg li incha allah adama incha allah. waaw kay ci naka noonu nag ñu desandi ba tey rek ci li nga xamante ni moom mooy suba teel ñu pare woon ci société euh, fas yéene nag euh, dalal ki nga xamante ni mooy naataange ngir mbiri naat ndaxte nawet la ñu toll euh, faw mu dikkat rek wan ñu lan la ñu mën a def mu barkeel te baax te mën a jëmale réew mi kanam kooku nag di El Hadj Mansour Diop. ziar <laughs> temps yi dama dawoon parce que Covid 19 bi. <laughs> waaw seen yi dafa xaw a gàtt ci man. moo tax ma daw leen <laughs> comme man ak Ameth nii la ñuy dàndante. Mm-hmm. mais comme tabaski gaa ngi jige si nawet baa ngi ñëw donc euh, mm-hmm. faw ñu gaaw a daal di ñëw quoi. Mm-hmm. donc dañuy dañuy dem taf taf rek. Ah, ma balaa ñuy dem foofu dañuy daal di dem rek jëli suñu pub partenaire yi bu dul loon ñoom tamit <laughs> lambay ñaaw. jël leen ay ca bokk ci noonu nag laa leen di may suñu page publicitaire bu ko defee rek ñu dellu si waat sur le plateau. tabaski gaa ngi jige si donc il faut ñu dem découvrir bergerie xool ba xam ñan ñoo noppi pour jaay ay xar mhm. yan façon la ñu indi est-ce que njëg gi dina yomb est-ce que xar dina manqué wala déet mhm. balaa ñu interpeller gouvernement bu Sénégal parce que itam loolu dafa am solo euh, chaque année Sénégal yi dañuy dund ci ay jafe-jafe ci wàllu tabaski te ren moom maa la wax ni xar dafay cher mhm. ah. waaw dëggantaan mais déjà am na ay ay euh, éleveurs yu am ay bergerie yu mag yu am ay solution ak politique bu dëgër bu durable boo xam ni mhm. dina mën a dimbali secteur boobu ba xëy na ñu mën a dimbali yenn personnes yi ba tabaski gi bi du du cher lool ñu dem xooli bergerie Bécaye ci benn exposition bu ñu defoon bëgg fi def émission oh. alors jigéen si euh, Sall euh, waa ji mooy présenté mbokki téléspectateurs yi def naa si woon na ci suñu émission yële passé donte woon gisuñu ko mooy gan euh, mooy Kosso Junior nekk doom ci Ibou Fall Ibou Fall nekk doom ci commandant costaud te ko xam BKR nga xam ko ci costaud parce que BKR bi ñu ko sàncee ba léegi macha allah costaud euh, bu dee 100 pour cent la 80 pour cent bi costaud a tax ñu xam ñu. Mhm. mun nañ ci kii léegi doomam bi nag nekk doom boo xam ne dañ ci am yaakaar euh, yàlla bu ci yaakaar te sëtam bi bokk papa ji moom nekkoon na maal boo xam ne yéeme na yéeme na euh, mais ni nga ko gisee nii moom musul génn. loolu moo tax mu costaud si ñoom musul génn. musul génn bu dul fii nii léegi nag ndegam invité lañ xam nga Adam moom boo xoolee BKR bokkul Adam. Mhm. mais invité association yi ci région yi ak eh, mooy ñi nga xam ne ñu ngi seen fédération léegi ñu ne nañ invité région national des éleveurs du Sénégal bi ñu invité ñoom ñu jël BKR euh, délégé ko muy bu Omar Sow président Omar léegi ñu ñëw délégé ñu ñu indi sunuy xar mm. ñu indi Kosso Junior ak benn doomu Ibou Fall bu jigéen bu tudd Mignel mm. ak benn doomu Pagnam bu tudd Madame Tall ak Zawdia doomu Koromak mm. ak benn métissage sud africain Sénégal mu nekk yaay ji nekk doomu. sud africain ak. Eh, xaru Sénégal laadu moo nekk ni mu ngi tudd Moussa. waaw Moussa Moussa Moussa Moussa. Moussa l'essentiel Moussa la ah, tudd Moussa Ndiaye xaw ma jaañ en tout cas man ba may ba may jëkk a sama numéro bu njëkk ci BKR booba xale bu tuuti la woon mbote la woon mais bokkoon na mooy mbote bi ma gënoon neex d'ailleurs ci gerte gi li koy firndeel tey dama dugg si waat rek daal di koy daal di koy xàmme. Ah. waaw moom nag yaay ji euh, doomu jaraaf la euh, muy yaay ji ci gàttal éleveurs yi ñuy seetaan dana am ñoo ko rakk la ci Laurent Blanc Laurent Blanc dafa marqué histoire. mu nekk euh, lu am solo waaye faram fàcce bi ci say kàddu xam naa lay gën a leere ñu mhm. bàyyi la ko rek. loolu benn waxtaan la bu ma seqoon ak sàll sàll moom euh, bokk na ci responsable yi nekk ci BKR euh, président bi di Omar Sow ak Mbaye Diène mooy directeur général bi parce que BKR. Mhm. entreprise la. entreprise la boo xam dafa am bergerie bu mag Dakar ak ci yeneen ci ay régions bu tabaski jigesee Euh, dañu demoon ñoom France jënd ay euh, charolais xam nga charolais genre xar la yoo xam ne dafay ngande comme laadum mais du cher comme laadum donc ñu ñëw def benn composition ak xar yi Sénégal yi donc pour mën a génne xam nga xar mën a am ñaari yoon doom ci at bi donc mën a def production tey fi nekk nii ñoom am na seen benn bergerie bu ñuy waaj def muy exposition ak Guédiawaye daañu def exposition au moins quatre cent ba cinq cent moutons loolu benn la ñaareel bi ci des am na ay sàmmkat yoo xam ne dañu nekk ay Jolof ay Waalo ay Tamba am nañu ay ay xar mais amuñu moyen déplacer leen wala ñu louer ay camion. Ah, lii la mooy tungune bi. non li béy la li béy. Ah, sud africain la ah, béy bi euh, mu ngi mu tudd Jean. comme xar de. waaw béy bii mhm. mooy Jean bi nga fi indi woon. Jean Ngok. Jean Ngok Jean moo sama xarit la. non de comme <laughs> yi dañu dañu dañu cher. Mhm. dañuy dem ba couple mën na couté ay 3 millions. ah mhm, dañu cher. mais mais gis nga li ma la expliquer avantage bi am am na sàmmkat yoo xam amuñu xaar parce que mënuñu déplacé wu ak situation bi. wala mhm. amuñu moyen bu ñu fayee camion ñu indi leen Dakar. Mhm. donc euh, BKR ak euh, Revades dañuy dem ci àll bi. Mhm. dem jël xaru sàmmkat yi mel ni ku ko jënd ci ñoom. indi ko jaayal leen ko après joxaat leen xaalis bi. Mm. donc mu am benn benn forme de solidarité bu am ci diggante ah, éleveurs yi. xëy na bu leen ci gouvernement bi jàppale mm-hmm. euh, tabaski ci kanam tuuti euh, dootuñu am ay jafe-jafe. Euh, parce que politique bu am solo la mais ma ngi maa ngi alerté ñëpp rek moom tabaski dina cher. c'est vrai am na ñu ciy def ay jéego ay njàmbaarte. mais xar dafa cher. Mhm. ba jamono ji ñu toll moom awagul tànki wàññeeku parce que dund bi dafa cher. Mhm. nawet bi commencé na mi amagul doole. donc euh, mënaguñoo xont ci ñax mi. nguur gi ak aliment bi mu waxoon ne subventionné na ko. Mhm. anam gi ñu ko defee vraiment tasul. et puis mënoo yor cent moutons wala deux cent mouton ñu lay jox ñeenti saaku wala juróomi saaku nga xam ne doyu la sax benn fan doyu la sax benn cinq minutes benn cinq heures de temps donc moo tax nga xam ni politique bi bu gouvernement bi ci côté aliment bi dafa dafa des lu bëri léegi boo boolee paramètres yooyu yëpp nag ren moom tabaski dana metti Papa Sane. borom kër yi tiit nañ. borom kër yi tiit nañ de. gisoon ni ma ne tekk. ah war ngaa jënd xar waaye ay euh, baaxu euh, li xar di jar ay à peu près ñaata lay mën a doon. sa poche muy toll. en tout cas moom. Euh, kon xaru cinquante mille dootul amati soixante mille eh, soixante dix mille. cinquante mille moom kenn du ko yóbbu. parce que mboote rek boo ko rombee cent cinquante ci am cinquante mille mënoo ci am xar. waaw non non non xaru cinquante mille ren moom. bu ko kenn xaar ci tabaski pour lan pour lan tabaski. tabaski c'est bu kenn xaar bu ko kenn xaar mënul nekk. Euh. wala boog nga xam ni. ak ak ak ak guuxaan lay doon de. Mhm. loo xam ne rey mu dee rey mu dee. naa Mansour am na xar yu bëri da doon jóge ay Mali. ci sous yi xar dafa daan jóge pour ñëw fii ci tabaski bi. Mhm. mais ren dina compliqué ak euh, situation bi ñu nekk. dafay dafay dafay compliqué loolu laa lay wax noonu d'ailleurs sax sàmmkat yi nekk fi Sénégal xam nañu ko ñi nga xam dañu am franc déjà dañu dem jëndi benn benn quantité bu ngan ngand ci ay xar ñëw. pour jéem a def mm. opération tabaski mm-hmm. parce que xam nañu ni dana cher te tabaski bi faaw ñu def ko euh, ñii nga xam ne ñoo amoon aussi mouton yi ci àll bi dañu dem ba mujj sonn mënatuñu mënatuñu alimenter seen ay jur mm-hmm. te déplacement bi li nga ko waxee sànq dafay jafe maliens yi ak mauritaniens yi mm-hmm. c'est vrai que nag yi ñu ngi commencé ñëw parce que boo demee tey fu mel ni Sandiara euh, maa ngi foo gis ay ay coggal ñu ngi commencé di ñëw mais coggal daf doon yomb mais même cette année si coggal taxul mu yomb donc vraiment moom euh, tabaski dina metti ah kon borom kër yi dañ commencé dajale xanaa mm-hmm. ah doy na waa man non seulement xar dina dina jafe mais surtout aussi dina manqué ku yebu mu teel a jënd rek daal di fat sa kër je pense que moo gën a wóor waaw manque gi waaw manque gi foog naa mu am aussi mm-hmm. Mm-hmm. foog naa mu am bu ci bu ci ndimbalal yàlla amul lool lool lool manque gi dana am ah, kon dina manqué it dina manqué dina changement amul entre temps gouvernement moom mun na lépp. xëy na ñu changé euh, daf am benn volonté d'urgence bu ñu def politique d'urgence bu ñu def. Mhm. Euh, dem Mali ay Burkina Faso yooyu jëm faa ut ay xaar indi. nga yaakaar euh, duñ ko doon def ak duñ ko parce que affaire yi ñëw ñëw na ba nag ah. Mhm. tabaski ñëw na kay. di lu bari en tout cas am na solo. parce li nga wax nii li ñuy waxtaan nii. c'est-à-dire ku ci nekk si ñun selon média bi bi mu la fekk daaw wala daaw jékk wala feneen mhm. le même spectre le même discours mhm. la même émission wala le même genre d'émission c'est le même phénomène chaque année noo xar dina manqué xar dina problème le même xam nga lu tax parce que ñi yor Sénégal ñoo parvenir jusqu'à présent à faire de sorte que moom dafay yar ay xar par exemple mhm. il faut calculer le nombre de Sénégalais yu mel ni Mansour Diop yu yar ay xar Sénégal. Mhm. ñooñu du ngeen leen oyofal yar bi. waaw tamit. yombal leen ko ñoom tamit ñu nekk de grands producteurs. Mhm. démultiplier wu mu yaatu. Mhm. mbir mi yomb si ñun fan lañu toog. te 2020 ñu toog ñu naan dañuy peut-être gouvernement bi wuti xar. doy na waar gouvernement bi moom toggaayam yëpp la war a nekk di defaraat. waaye en ma jëloon sànq moom BKR président Omar Sow. Mm-hmm, mm-hmm. politique bu am solo la. am bi ay femelles mille femelles. Mm-hmm. fexe ñu am doom deux ci année bi. tout à xar. bu fekkoon woon ni bergerie yëpp dañuy def comme noonu wala état bi dugal loo xam ci politique bu mel noonu. Euh, dana dana arrangé askan bi trop mais problème bi nag. fii ak vol de bétail mu ngi ci Sénégal. ah waaw fii ak vol de bétail par exemple. man Mansour man man mun naa mun naa mun naa yor 1000 xar am naa possibilité bi am naa espace bi. Mhm. bëgg naa ko am naa politique bi mais ñi mu ma ñi mu ma yor xaajaat bi. Mhm. fan nga koy def ba duñ ko sàcc non seulement dañ koy sàcc mais dañ lay rey bu ñu koy sàcc si. mais sàcc yi vol de bétail c'est un problème national Macky Sall bi muy falu xam na gravité ba tax moom président daf ni woon dafay criminaliser vol de mhm. ndax gravité bi donc xam na ko nañ ci bàyyi xel bu baax a baax sàcc yi tamit nag buñ nañ bàyyi di tas yaakaar merci beaucoup mu nekkoon naataange sant nañ leen ba àllarba dinaa ñëwaat. incha allah kon corona kon corona bi jeex na dinaa ñëwaat damaa bëgg a dem tool incha allah. parce que bët séddu na. foo ma dem ruuj. tout à fait parce que li may wax de foo ma wan nit ñi ni leen mën naa ko aussi. dinaa la gunge nag bu ko defee yóbbaale benn caméra rek xam nga man damaa ñeme nag dem euh, à l'aventure bu ko defee rek ma gën a am ci beneen xeetum xam-xam. Eh, asma naa aventure yóbbu la fa <laughs> grillage moo la fa yóbbu. kon noo ko xamee ci bon à savoir Rokhaya mi mujjee wax ñu daal di ko delloo kàddu gi. bu ñu noppee si ndawal bi mën a yóbbu toolu El Hadj Mansour Diop dañuy fas yéene waxtaanee euh, astuce ñi mën a def bu incendie amee maanaam tàkk-tàkk. Mhm. lakk-lakk dañuy wax ne lakk-lakk ñëpp ñëpp ko ragal muy mhm. xale muy mag ak ak euh, ki ci gën a tuuteeg ñoom ñëpp ñëpp a lakk-lakk dañuy wax ne nit saa su jógee rek moo ngi tooñ te noonu la ragalee lakk-lakk mhm. donc yàlla nañ ci yàlla musal te yàlla ñu jubal. moo tax dañuy ñëw ci li nga xamante ne mënul ñàkk ndax parfois dañuy utiliser ay matériel wala ay produits yoo xamante ne mën na créer li nga xamante ne moom mooy incendie maanaam lakk-lakk moo tax dañuy ñëw ci quelques consignes de sécurité à respecter en cas d' bu fekkente ne lakk dafa am donc koo gis foo mënti nekk nga nekk sa néeg wala nga nekk sa appartement wala nga nekk ci immeuble parfois lu ngay wuy téléphone sax jege gaz euh, euh, maare day taare leneen fekk la ci donc yooyu yëpp am na ay risques mm-hmm. à chaque fois dañ koy gis ci réseaux sociaux yi ñu koy publier nañ a ci antiseptique bi gis naa ne dafay tàkk dafay taal démb sama frère da doon boyal keneen ki ne ko lii day taal mu naan ko déedéet du dëgg mu jël ko teg ko ci bois bi paccal ko ci kos almet teg ko nga gis ko muy tàkk ah bon voilà yi nga xamante ne dañ koy jaay donc yu ci bëri produit yu bëri yoo xamante ne dafay dafay gaaw a tàkk du essence rek lañ ci xam moo tax dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax bu fekkente ne da nga nekk sa kër nga gis ka ne am na fumée bu lay xeeñ nga gis ka ne lakk-lakk mu ngi am bu fekkente ne am nga temps bi rek njëkkal jël sa téléphone dañuy wax wootee secours bu fekkente ne nga woote secours balaa ngay expliquer dañuy faral di wax ci danger boo mënti nekk asma muy ñu lay agressé muy nga nekk ci koñ boo xamante ne muy muy ñu kidnappé la foo mënti nekk boo wootee secours looy njëkk a joxe mooy sa position fi nga nekk ngay njëkk a joxe maa ngi tel lieu maa ngi tel endroit fekk leen ma fi doog a wax li nga xamante ne moom moo xew donc comme ça en cas d' accident bu fekkente ne sa cri dafa jeex wala nga raccroché ñoom ñi nga xamante woo muy police wala muy sapeur dina xam exactement ban endroit nga leen wax ne leen foofu am na danger dañ si bàyyi xel bu baax a baax balaa nga xamante ne moom moo fa xew mais aussi inspecteur dañuy gis ne kër yi fi am inspecteur daal boo boo xoolee est-ce que mat na 2 pour cent. ñun sax defuñu ko ci suñu voilà tey inspecteur dafa nekk loo xamante ne dafay fay lakk-lakk war nañ ko am ci immeuble yu mag yi nag gis nañ ne ñi nga xamante ne dañoo bëgg lu baax ba mel ne ñun mel ne danaa dañuy dem xool kër gu baax bëgg faa dëkk te parfois dañuy gis ne borom kër gi sax defu fa porte de secours wala mu def li nga xamante ne moom mooy inspecteur di nga ci escalier yi ndaxte lakk-lakk mën na génnee fu nekk ba tax na boo koy dañuy dañuy wax ne bu tàkk-tàkk amee ci fumée lay njëkk commencé moo am na ñoo xamante ñi am ay détecteur de fumée maanaam immeuble yu mag yi ñi nga xamante ne ñooy tabax di def grande construction bi mel ni fii nii ci am détecteur de fume saxaar bu doon buy buy génn rek day day sonné alarme comme ça nit ñi xam que ne danger mu ngi waaj a am ñi ñi ñuy am instincteur génne ko daal di fay bu fekkente ne nga nekk ci kër boo foo xamante ne dafa tëju ci néeg wala ci benn bërëb boo xamante ne dafa tëju lakk-lakk bi mu ngi jub mënoo góoti ji bunt bi pour génn et tout dañuy wax que ne dangay faral di moytu li nga xamante ne moom mooy fumée bi ndaxte fumée moom moo gën a moom saxaar bi moom moo gën a dangereux que li nga xamante ne moom mooy tàkk-tàkk bi mm-hmm. saxaar bi moom moo lay rey moom moo lay fatt say bakkan moom moo lay asphyxier moom mooy tax nga perdre connaissance ba daanu balaa lakk bi sax di la jot loolu rek mën na la rey am nañu ci bëri ñoo xamante ne ay cuuraay euh, tëj nañ ko seen néeg bàyyi fa xale ñu yeewu fekk bakkanam dem na donc yooyu yëpp saxaar bi moom mooy gën a sax dangereux que li nga xamante ne moom mooy flam bi nañ ci bàyyi xel ba tax ne aussi bu fekkente da ne foo xamante ne dafa lakk dina leen faral di am mouchoir boo xamante ne dafa humide maanaam mouchoir bu tooy ngeen koy teg ci seen bakkan pour moytu li nga xamante ne moom mooy euh, saxaar bi mais aussi de préférence fekkee dafa nekk foo nga am saxaar dañuy wax que wala nga euh, tëdd ci suuf moom mooy gën parce que fumée bi gis nañ ne air bi da koy da koy sànni ci kaw ci kaw lay faral di gën a jàpp que ci suuf donc en attendant ñu lay secourir di la dimbali wala ñu lay tijjil mën nga jonkoon ci suuf nga nga nooyi li nga xamante ne moom mooy air frais bi donc loolu nañ ci bàyyi bàyyi a baax aussi bu fekkee lakk-lakk dafa am foo mënti nekk muy si entreprise yi immeuble yi nga xamante euh, dafay kawe lool maanaam da éviter di jël ascenseur am ñoo xamante ne buñ tiitee rek dañuy daw dugg ci ascenseur te loolu moom moo gën a dangereux ndaxte boo duggee ci ascenseur ascenseur bi électricité moo koy dawal automatiquement dafay taxaw te kon da ngay nekk en danger doo am issue de sortie doo am fenn foo génn moo tax bu lakk-lakk amee da ngeen di incendie mën na fa am ndax a faju mais ta aussi surtout ñi nga xamante seen kër yi aussi baraak la ndax xam nga ne bois day gën a gaaw a jàpp donc da leen bàyyi xel xale yi nekk ci néeg bi ak personnes euh, ñi nga xamante ñooñu ñooñu dañu am problème pour génnee seen bopp ngeen génnee leen ba pare yéen ñi nga xamante dara jotu leen ngeen daal di génn mais d'habitude dañuy wax bu lakk amee rek nit ñi dañuy tiit duñu xam fu ñuy jaar dañuy paniqué voilà mais da ngeen di def nànk rek ngeen daal di def li nga xamante ne moom mooy instruction yi te gis nañ que ne lakk dafa gaaw te am na foo xam te ne mën na la fa fekk mën nga daw nga wàcc wala nga daw escalier am na ñoo xam ne dañoo bëggee ba mel na roxee bu lakk amee dañuy daw di xool seen armoire la fa am ñu daal di koy génn <laughs> yooyu ñii di xool ah, léeg-léeg sama mbokku pël yi mbokku binte yi seen xaalis si armoire bi moom rek la ñuy lijjanti laay ñoom dañuy dee rek waaye duñ génn da gis koo xam ne lakk dina am ñu naan ay waay diw ay nañ ko génnee ay waay papa diw nañ ko génnee fekk mu ne deelu génn ci néeg bi fekk am na lu mu fa denc <laughs> gëm leen yàlla <laughs> bu fekkee tere lakk ñaanaluñ leen ko. Ah. non. xanaa. 6 millions millions ci na 6 millions génn. sama maam maamu pël ba. Mm. quoi. feebar feebar ba ba ba bay bëgg a dee après ñu wut wut ketal ko ket ket ket mu ne manque mill cinq cent mm-hmm. mu ni moom léegi am na mille cinq cent ci poche am ah. koy lebal ah. ah te dañ ko doon ketal moom léegi bi ñu koy génn bi ñu koy génnee mille cinq cent yi moom mu lebal ko ñu koy jëndal ordonnance bi mm-hmm. fekk nañ fa cinq millions <laughs> dëgg wax na dëgg nag. ñoom de. dëgg la ñoom moom. ala noonu nag eh, dañoo tàlli nag tamit de dinañ dinañ joxe dañ. Ah. ñoo dàq joxe lekk ci àdduna bi. lekk moom yàpp de gaaw nañ ci moom rey. dañoo ñoom dañoo bokk cosaan ak naar yi ah mu ngi noonu alal dafa sax ci xol moo tax boo xalaatee ni lii mën naa koo ñàkk dalay jaral ba tax na yow boo nekkee en sax doo ko xam. mais ni ñi gëm yàlla rek raawul ñoo ko liggéey. moo tax léegi nag ñu war a dem ci banque yi moo gën a wóor ndax denc bu yàgg boobu am na fi te am na ñu koy dund ba tey comme ngeen ko waxee ne am na ñoo xamante ne dañoo conservateur wóoluwuñu torop wóoluwuñu dénkaane fenn. c'est que du loolu sax pour génn tuuti gàmm da ngay da ngay dénkaane banque mel ni moom moo sa xaalis da ngay ñëw pour ah. récupérer wallaahi coono gi nga taj rek day tax yow ngay denc sa kër moo lay gënal. Mm-hmm. bilaay ñu lay taxawloo ay buntu buntu buntu banque. naaj bi tàng rek moo ma dese. bilaay walaay ñu woyal. <laughs> dëgg la problème dafay bette bu ñu dañuy ñëw nag ci type d'inspecteur yi nga xamante ne moom moo am parce que dafa bëri façon bu ñu waxee inspecteur dañuy foog ne yëpp benn la mais am na ci boo xamante ne eau additif la am boo xamante ne mousse la mai am na boo xamante ne poudre la am boo xamante gaz la mais gaz bi nag dañuy wax ne moom moo gën a efficace parce que moom lépp luy problème électronique mooy électroménager yi di lakk micro-ondes yooyu di créer incendie yooyu mun na koo mun na koo dindi muy électrique informatique ak yi nga xamante moom mooy lakk yi am ci waañ bi ndaxte bëri jigéen ñi bu ñuy togg gën leen vigilante gën leen prudente ngeen di toog ci buntu waañ jigéen buy togg du génn waañam da koy xool parce di tëdd guddi moo gën a wóor donc loolu laa leen indi loon rek di leen ko fàttali pour ñu def attention bu baax a baax fépp fu ñu nekk mu am lakk-lakk ñu woote sapeur pompier vite fait. en tout cas am na solo am na solo de bàyyi ci xel am na solo te en général période tàngaay nii ak yooyu noonu. Euh, lakk-lakk dafay faral di am lu bari surtout. Ah, na na nga na nga na nga bàyyi waale xel wax ci jamonoy nawet bi jaan yi am jaan. jaan waaw bu la jaan màttee nooy def. Mhm. très important. ah Mansour xam nga est ce que xam nga démb damay wax ak sama frère ma ne ko animaux sauvages bu ñu lay attaqué am na nooy def mais dama ñëw ba ci gaynde ma koy expliqué mu ne ma loolu boo ko yóbbu ci télé bi ndax. ku gaynde jàkkaarloo ku gay jàkkaarloo gaynde da ngay daw ma ne ko non pourtant wax nañ ko boo jàkkaarloo gaynde nga xam da nga nekk en danger da nga koy fixé bu fekkee da nga sol veste da nga koy yëkkati tu essaies d'être def moom xam ko yóbbu ci télé bi <laughs> na solo ñu bàyyi a baax. merci beaucoup mu nekkoon. Euh, <laughs> <laughs> gaynde bi fi duggoon nga xam. merci merci yàlla moom. merci kon ba passé ba àllarba incha allah incha allah dinañ la xaar ci yeneen naataange. incha allah rabbi nana. merci Asma di remercier comme d'habitude euh, Massimo Shop euh, pour se dire que ñoom dañoo polyvalent tey jii nii. ñoo mhm. génn ci olof bi donc 77 euh, la. 097 mhm. 92 ñoom ñu ngi nekk fële ci Ouest Foire merci à tout le monde et à samedi incha allah. merci beaucoup Papa Sène Seck Sénégal ñoo far. man ak yow de war nañ xool suñu couleur yi ak ku ñuy noonu merci beaucoup ñoo far moo tax waaw mi ngi noonu xool day gisee moo asma rek di la remercier bu baax a baax ainsi que fidèle téléspectateur yi nga xamante ne saa su ñu ngi jàkkaarloo ak ñun di nuyu Khady Aïdara ak Bénédicta bu baax a baax ah di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ñu seetaan fépp foo munti nekk mais aussi Mor Dramé shop ma koy remercier marché Gambie moom tamit moo ma habillé moo ma defal nii moom itamit ku ci bëgg merci beaucoup à Mor merci beaucoup à vous charmants téléspectateurs suñu taar moom moo si jaar euh, bés bu nekk euh, semaine bu nee rek wax dëgg yàlla aw ma fayam waaye képp ku bëgg lu taaroo nii rek ngir wala gën a taaru sax euh, da ngay daal di dem rek HLM Grand Yoff numéro bi we affiché wu na léegi kon ngeen woote ci moom dana leen defaral bu baax a baax lu rafet waaye nag ma fàttali ni 11h da di am waxtaanee ko Mantoulaye moom moo koy jiitee ak ay ñoñam bu defee ñu gën leen a waxtaanal rek ci li nga xamante ni moom mooy li soxal askanu Sénégal bu ñu noppee nag ci moom dama leen di wax ni rek 15h mooy suñu émission euh, commerciale di wone ma maman ak Betty euh, fas yéene leen a bégal euh, ci tàmbaliw ngoon gi 17h tamit nag le grand rendez-vous dafay ñëw Momo avec sa team ak ki nga xamante ne mooy Myriam Cissé bu ko defee rek ñu bégal leen à partir de 19h ngeen am l'essentiel en compagnie de Nene Aïcha 22h ngeen am li nga xamante ne moom mooy Pape Alé face à Pape Alé bu ko defee rek ngeen daal di ko gën a déglu rek ndaxte moom ay dëktal yu am solo la lañ di indil ak lu tegu et demi ak jëm suuf da ngeen di am li nga xamante ne moom mooy gis-gis ba tey askanu Sénégal la ñu ñor euh, kon nag euh, Sofia ak euh, ki nga xamante ni mooy Père Mangone seen pap seen maam suñu maam fas yéene leen a bégal si guddi gi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe technique bi je vous dis à